bismillahi arrahmani irrahim wa salla allahu wa sallama ala nabiyina muhammad ajmain mbokk yi ñuy déglu fii ci daayira génération soppe Serigne Sam Mbaye ak képp koo xam ne suñu kàddu gi àgg na ci yow ak foo mën a ñoo ngi lay nuyu nuyoo bi gën ci nuyoo yi te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax ci weeru màgg wii ñu nekk di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex li weesu lépp yàlla nañu ko nangul te jéggal ñu rëcc rëcc yi ak manki manki yi li des itam yàlla nañu ko yàlla defal mu gën li weesu yàlla dëppal ñu ak leylatul qadri nangul ñu mbooleem suñu ay jaamu yàlla ñoo ngi ziyaara bokk ci groupe bi yépp sëñ Abdoulaye Cissé comme noonu nga ko waxee noonu la deme euh, groupe bi moom du ñu fi gan euh, xam naa xëy na léeg-léeg xat-xat yi jàpp ñu rek ba dugg gi di xaw a sore waaye loolu moom moog jamono ñoo ànd waaye ñu ngi nuyu ñëpp tàmbalee ko ci kilifay daara ji xam naa it su ma bëggoon a lim ay tur moom euh, dana dana vocal dana gudd lool ndax bari nañ fi ay xame ak i xarit wax dëgg yàlla euh, waaye ñu teg nuyoo bi rek ci loxol sëñ Abdoulaye Cissé bi nga xam ne moom la ñu seqal jotaay bi dalal ñu euh, su ko defee moom mu jàll nag ci mboolam koo xam ne mu ngi ci biir daara ji kenn ku nekk ñu ngi wàccee wàcc waayam di ko nuyoo nuyu ba gën a sell ci nuyoo yi euh, di am mbégte bu baax a baax ci seqaat ak mbokk yi beneen jataay boo xam ne eh, xam-xam Euh, bu lislaam moo ko tax a jóg mu jotaa yëpp euh, wu juyoo yi am ci wàllum séentu weer ak waxi boroom xam-xam yi di am yaakaar rek incha allahu bu ñu noppee ci jotaay bi mu doon jotaay bu am njariñ boo xam ne dana fàttali ku fàtte woon xamal ku xamuloon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah mbokk yi kon ginnaaw nuyoo yi waxtaan wi comme noonu ko sëñ Abdallah Cissé waxee noonu la deme ñu ngi ko bëgg a jëme ci mbirum weer wi mbirum weer dafa doon loo xam ne yàlla daf ñoo digal ay jaamu yàlla yoo xam ne dafa aju ci gisuk weer am na yenn ci attey charia yoo xam ne yàlla daf ko lëkkaleeg ay jamono daanaka sax mën naa wax Euh, atte sharia yu bare bare ba yi ëpp ci atte yi la ko lëkkaleeg ay jamono am yoo xam ne dañ koy xame ci jant bi am yoo xam ne dañ koy xame ci weer wi bu dee yi ñu xame jant bi mën a joxe misaal lu mel ne julli bu dee yi ñu ci weer tam lu mel ne aj màkka ak woor weeru koor bi ci la bokk yàlla mi ngi wax ci alquran naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj kon weeru koor kañ lay tàmbali weeru koor kañ lay jeex kañ la korite kañ la tabaski yooyu ay acte la yoo xam ne dafa dépendre ci feeñu ku weer dafa dépendre ci feeñu ku weer yonente bi nag joxoon ñu benn bu dee weeru koor la ak weeru kori moom mu ne woor leen buon ko gisee woori leen buon ko gisee su asamaan si lëndëmee ba mun leen koo gis ngeen mottali fanweer am beneen xadis bu ne su boobaa ngeen nattale loola nekkoon loo xam ne moo doon delluwaayub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom doon delluwaayub saxaaba yi ba ñu bi di dund ci seen biir waaye ci suñ jamono yu mujj yi nag ñu gis ne loola kat am na lu ci bees lu ci bees mooy dëkk jullit yi léegi dañoo soriantoo lool par rapport ak bu njëkkoon nga xam ne daanaka fi jullit yi nag pour àggale fa ab message moom du du jël temps bu bare waaye biñ demee ba tasaaroo nag la ab jiw am ci diggante boroom xam-xam yi ak diggante xibaarub weer woowu moom naka lañ koy jàppe naka lañ koy doxal léegi su ko defee ci tàmbali waxtaan wi danañ ci def ab laytaay rek ci xam ne lan mooy liñ tuddee ixtilaaful ixtilaaful matalia mooy wuute fenktali weer wi ak ndax dañ koy considérer ci jaamu yàlla yi wala déet foofu ñetti wax moo fi am ci diggante borom xam-xam yi ñoo xam dañ ne ixtilaaf mataali moom kenn du ko considérer mukk waaw am ñoo xam ne moom dañ ne aha kay dañ koy considérer ba faw am ñoo xam dañ ne aha kay lekk léeg ñu considérer ko waaye nag daa am ay conditions mooy léeg lañu ñu considérer ko léeg-léeg kenn du considérer kon ñetti wax yooyu moom moo ci am su ko defee wax yooyu yëpp itam bu ci ne ña ko wax am nañ ay argument ay adilla ay tegtal yoo xam moom lañu indi dellu ca ay tegtal yooyu dañ tudd dañ ko tudd jàngat tam tegtal ya jàngat ko su ko defee nag képp ku deglu moom boo dégloo ku ne say tegtal déglu itam jàngat yi nga ci def danga nga daal mën àgg ci ab résultat boo xam ne mooy ba dal sa xel nga nga jàpp ca incha allah su ko defee yàlla ci xikmaam moom moo def nit ñi bokkuñu ay dëkkuwaay loolu itam ngir ñu mën koo dundal waaye itam fu nek ci pakki suuf yi am fa ñu représenter yalla ndax yalla ñu andi ci aduna ngir ñu nekk xalifaam ta suuf ci da yaatu fu nek nak ay jaam nek fa yalla yit mo dogal manam suuf ci bopam jant bi ak weer wi day dox jëme ci barab jëm ci barab lolu taxna ba dëkk ci aduna bi di wuté ay penktal jant di wuta ay penktalu weer wuta ci ay heure wuta sax heure yu ñu julli wuta heure bu jant bi fenk ak heure bu jant bi so comme niñ wuté it ci waxtu wi weer di fenk ak waxtu wi weer di di di di dugg ci biir nga xamne ne yi am ñu rawante ay heure am ñu rawante ñaari heure am ñu rawante ñetti heure am ñeen ñu ñent ba am yu dëkk dëkk yu rawaay seen moroom juróom-ñeenti heure juróom-ñeenti heure loolu kon lu am la kon bu ñu waxee ixtilaaful mataali rek moom dañuy xam ne moom lu am la am waa waaqaan loo xam ne lu am la moom loo xam ne ku ne seen bët ku nekk ci bëtam ndax ku xam ne ne waa Makka ci misaal heure ba ñuy julli suba eh, fekk ñun daanaka ñu ngi suñu xaaju guddi heure ba ñu julli timis bo ñu den jant baa ngi fang ci ñun man na am sax duñu jullé gun takusan waaw bo demé rew mel imarat danañ dok ba julli timis ba julli Ge ba naafila ba nopi ñun wa sénégal ñu dogo dok kon lolu mbir la mo xamné ñepp ñëpp nañ ci seen bëtt mo xamné amul natal nattable kon ikhtilaf matalih mom amna xana kay fi wax di nek moy hal yu'tabar am la yu'tabar ndax dañ koy considérer wala kenn du considéré ci jaamu yalla fofu la wax di nek waaye ndax am naam déet moom mooy mataalau shams loolu moom lu borom xam-xam yépp dëppoor ci ne am na te dañ koy i'tibar bu dee mataalau shams laa wax maanaam pengatal jant yi kooku moom borom xam-xam dañ koy dëppoo wuute amu ca ñëpp dañoo dëppoo ci ne jant bu dëkk bu nekk ak jantam ndax tisbaar heure bi mu jot ca Makka mbaa heure bi mu jot ca turki masalan mbaa heure bi mu jot ca Amérique du bokk ak heure bi mu jot fii ci Sénégal mbaa heure bi mu jot ci mali mbaa heure bamuy jot ci nigeria kon penkatal janti bi moom wote gi mu wuute ci dekk yi koku mom borom xam-xam ñepp nangu nañ ko te considéré nañ ko ndax yalla mo ñu diggal lool yalla mo ñu diggal ne na ngeen julli bu wax janti bi demee euh, bu janti bi tollee sangam na ngeen julli euh, suba bu tollee béréb sangam ngeen julli tisba bu ngeen julli tas nga xam lépp yonte bi sàngam moo te da ko misaal bi ci alquran sax dañ danañ jàng aqimi salaata li dulooki shams gis nga yàlla dafa lëkkale foofu julli ak euh, sow jant ak fenku jant ba tey kon loolu moom amul wute léegi nag boroom xam-xam itam ba tey dëppoo nañ ci ne dëppoo nañ ci ne ki nga xam ne mooy xaakim jullit ñi ki kii jiite jullit ñi su génnee décret digle koor su boobaa itam ñëpp dañ caa war a ànd ñëpp dañ caa war a ànd su boobaa it kenn du xool ba xam xalaat bi maanaam maanaam décision bi mu jël fan la ko teg ndax daa dégg ñu ne weer feeñ dëkk sàngam mu jàpp loola ba tax mu digle woor wala déet waaye daal euh, dëkk bu am kilifa am njiit bu digle na nañ woor génn décret digle loolu ñëpp dañ caa war a ànd loolu nag njiitul jullit loo xam dafay doxal lislaam ci am réewam lislaam ñor ko moo tax ñuy wax loolu kon ba tey Eh, borom xam-xam bi dëppoo nañ ci ngir bañ juyoo di am ci ab dëkk ci benn ci benn dëkk ba tey itam borom xam-xam yi ba tey nañ ci ne ixtilaafu al xamar mooy weer wi wuute gu mu wuute ci wàllum feeñ ak ñàkk a feeñ kooku itam lu am la kooku itam am na ndax loolu daa bokk ci adawahir ak kawniya yi al mushahada yi nga xam ne gis nañ ko jarran maanaam jëhran mu leer ñu naal nañ kon loolu du lu lam laam-laamee léegi nag fa wax ji nekk mooy ginnaaw bi ñu xamee ne kat weer yi mën naa feeñ fii te du mën nañ ko gis doon ko gis fee la loolu lu am la ndax dañ koy considéré suñu jaamu yàlla wala déet foofu la wax ji nekk foofu la wax ji nekk loolu moom mooy waral moo waral juyoog borom xam-xam yi ci la moom laa sànq ñetti wax moo fi am ñu dañ koy considéré ak ñu duñ ko considéré ak ñu ne dañ mën nañ ko considéré ci ay conditions waaye mën nañ ko bañ a considéré tam bu conditions yi eh, dajewut kon ñu ñëw ci waxi borom xam-xam yi ci mbirum ndax dañuy considérer wuuteeg penkital weer yi wala ak ku la nga wax fan nga ko teg bu dee wax bu njëkk bi nga xam ne li ëpp ci borom xam-xam yi moom lañu wax mooy dañ ne wuuteeg penkital weer yi ci wala wari kenn du ko considérer la ibrata bi ixtilaafil mataaliat kenn du considéré wuuteeg penktal weer yi ci dëkk diggante dëkk ak dëkk ñoom dañoo wax ne bu ñu gisee ca fa gën a sori ca penku su boobaa mboolem adduna si yëpp yëpp yëpp war a woor bu koor la bu dee koor la mboolem adduna si yëpp wori donte fa a sori ca sow donte dañoo nekk fa gën sori ca sow lolu ñi ko wax bokk na ca borom xam-xam yi nekk ci ngirum abu xanifa fuqahaul xanafiya loolu mooy li gën a wér ci seenum ngir te loolu soo demee ci téere bi tudd fathul qadir lil kamal ibnu humam da ko ci wala xaasiyatu ibnu abidin ba tey itam wax boobu mooy wax bi gën a siiw ci ngirum imam malik mooy bi gën a siiw ci ngirum imam malik am na beneen wax ci ngir mi waaye bi mooy bi ci gën a siiw loolu tam boo delloo téere bi tudd mawahibul jalil bu xataab wala alqawaaninu fiqhiya leen majlis yi moom itam da nga ko fa da nga ko fa fekk wax boobu itam nga xam ne mooy ne fu weeru feeñe ñëpp a war a woorandoo adduna bi yëpp ñëpp a waree wari bu dee weeru kori la wax boobu itam ibnu abdul bar wax na ko ci téere bi tudd al istizkar wax ne wax bii maa ngi ko jëlee ci imam malik wala boog wax bi mi ngi jóge ci imam malik daal ne ibnul qasim di dongam imam malik di ko ñëpp xam ci ngir mi ne moo ko jële ci moom ibnul qasim moo jële wax jooju ci al imaamu malik daal na it ak égyptien yi wal masri wala wal masri yi woon égyptien yi nga xam ne dañoo nekkoon ci ngirum malik ñoom it lii lañ jële ci ngir mi ne mooy attam ngir mi mooy daal fu weer feeña adduna bi ñëpp mas a war a maase woor loolu ko dem ci al istizkar bu ibnu abdul bar da nga ko ci fekk kon loolu nee naa la mooy waxi fuqahaa ul xanafiya mooy itam li gën a siiw ci ngirum imaamu malik radiallahu anhu waaye itam wax boobu bokk na ci ñi ko wax ba tey ibn abdul bar nee na lii itam mooy waxi al lays lays di ku ñëpp xam moom itam di borom xam-xam bu mag a mag a mag ci ngirum malik ba tey waaye itam wax boobu it benn wax la ci ñi bokk ci mazhabu shafii yi imam shafii moom la gën a siiw ci seenu ngir mooy beneen wax bi naa ci ñëw waaye am na ci ñoom ba ñoo xam ne wax nañ ne ci ngirum shafii ba tey ne wax bii maalikee wax ñoom ci lañ ànd loolu itam mooy waxi alkuufiyuun moo ñu dëkkoon kuufa mooy wax itam imam ahmad ibnu hanbal te loolu it moom mooy ngirum ahmad ibnu hanbal muy xanaa bi lay mooy ñi nekk Arabie Saoudite dëkk yooyu noonu féete noonu nga xam ne ci ngirum xanaa bi la lañ nekk ñoom loolu mooy seenum ngir mooy fu weer feeñ bu dee koor la ñëpp a war a woor bu dee wari la ñëpp a war a wari duñ xool dëkk bi ak bee duñ xool nuñ xool euh, loolu kon mooy mazhabul mazhabul xanaabila moom itam ku demaat ci bu ibnu qudaama nekk kàngam bu mag a mag ci ngirum ahmadu ibnu hanbal da nga fa fekk wax jooju kon loolu may wax bu njëkk bi nga xam ne nee naa li ëpp ci borom xam-xam yi moom ca lañ nekk mooy daal weer fu mu feeñe ci adduna bi duñ xool dëkk bii ak dëkk bee ñëpp a mas war a maase woorandoo bu dee ware la ñëpp a war a maase wareendoo ma ñëw kon ci waxum ñaareel bi beneen waxum ñaareel bi mooy ñi wax ne ixtilaaful mataali mooy wuut ak pengital weer yi mom dañ koy i'tibar dañ koy considérer ci jaamu yalla yi nga xam ñom dañ ne dekk bu nekk ab gisam kon dekk bi bu gisee weer loolu du engagé benen dekk bo xam ñom gisunu gisuñu weer nañ gisunu même bu fekke sen 29 lañ nekkoon wa ñu séntu gisunu dégg na am dekk benen bu gis gis googu ñom du leen engagé wax bobu moy mom lañ moom maanaam ku ñu wax ibn al Munzir nekkil na ko ci akrama wala akrama ba tey tam mooy waxi ku tudd alqasim ibnu muhammad ak salim ibnu abdillah ak ishaq ibnu rawi ba tey tam imaamu tirmisi wax boobu jële ko ci ay boroomi xam-xam wax jooju itam ku delluwaat ci sunanu tirmisi bu imaam tirmisi da nga fekk a na fa bunt ci téeréem ba tudde ko baabu maa jaa li ahli baladin ru'yatuhum manam buntu bi nga xam daan moy wax ne wa dekk bu nek dañuy dépendre ci seen gisu bop dañuy dépendre seen bisu bop ko dem ci sunu tirmisi dang ko fa fek kon loolu mom moy ñoni moy ñi nga xam wax nañ ko batay tam ibn abdul bari mi ma waxoon borom istizkar wax na wax bi dal koy askene nak abdullahi ibnu abbas dal ni ibnu abbas Eh, ci ñu wax lii la bokk loolu tam ba tey eh, ko doon delluwaat ci al istizkar bu ibnu abdul bar da nga ko fekk dégg nga ba tey itam al madani yi woon mooy ñi dëkkoon madina te nekk ci ngir imam malik ñoom it loolu la ñu wax wax naa sànq ne ñi bokk ci ngirum malik te dëkkoon égypte ñoom dañoo bokk ci ñuy wax ne kat kenn du considéré wuuteeg dëkk yi ci gisu weer waaye ñi bokk ci ngirum malik te dëkkoon madina ñoom ñoom dañ ne ah kay dañuy considéré maanaam gisub dëkk bu nekk sab gis waaye ba ñu xelal ba nag dañ caa yokk ne lu dul nag dëkk bu am imaam yoo xam ne moom mooy wax nit ñi woor leen wari leen bu dee dëkk bu mel noonu moom moom saa yi imaam joxe ndigal rek la imaam ba wax moom lañuy ñuy topp imaam ba mooy ka xam moo jiite jullit ñi foofa. daal ne wax boobu nag ba tey Ibn Majsun ba tey nekk ci ngirum Maalik di borom bu mag a mag ñëpp xam nañ ko moom it loolu la wax al-Mughira ba tey bokk ci. dongay Maalik bokk ci ah, ñu bokk ci ngirum Maalik ba tey moom la wax am na itam borom xam-xam bu ñu al-Mawardi boo xam ne moom itam ci ngirum Shaafi'i la bokk nee na am na ab wax ci ngirum Shaafi'i ñu wax loolu ba tey itam imaamu Zaylai al Imam Zaylai bokk ci ngirum Xanafiya moom it moom loolu la wax waxi eh, Ibnu Majzun boobu Ibnu Majzun bokk na ci dongay imaam Maalik yi nga xam ne ñoom ñoo tasaare ngirum Maalik lu bare bare bare ci Hijaz ak Iraq ku delu ci ad al-Mazhab libni Farhan al-Maliki momi dang fek wax bob batay tam waxi batay tam waxi Zayli ay joju nga xamne wax naa wax nako tam bok ci ngirum hanafiya momi tam ku dem ci tabiinul xaqaa'iq sharhu kanzu daqaa'iq li Zayli ay dang fekk wax jooju kon yenen borom xam-xam a ngi nii yoo xam ne ñoom nee bu nek day dépendre ci ab gisam kon wuté penktal tal wéri dañ koy considéré ci jaamu yalla yi hasaba e, ru'yati kulli dawla kulli balad manam dekk bu nek day dépendre ci ab gisam day day sukkandiku ci ab gisam kon loolu mom moy wax ñaaral bi ma ñu ci wax bi waxum bi moom ñoom dañoo wax ne euh, wuutee penktal weer yi dees na ko considérer naam waaye ci ay conditions mooy bu fekkente ne ñaari dëkk yi dañoo soree lool su moom dañuy jàpp dëkk bu nekk sa gisu bopp waaye nag bu fekkee ñaari dëkk yi dañoo jegee su boobaa moom kenn ko considere kenn ko considérer foofu nag ba tey jafe-jafe am na fi jafe-jafe bi am mooy lan mooy maayaarul qurbi wal bu'd maanaam lan mooy nattukaay bi natt na dëkk ñaari dëkk yi ka sore nañu wala ñaari dëkk yi jege nañu ala kulli xaal wax boobu moo mujj wax sànq mu ñetteel bi moom mooy li ñu li ñu considéré ci ngirum imam Shafii yi mooy almutamad ci mazhabi Shafiiya ba tey itam mooy almutamad di gën a wér ci ngirum wax boobu kon mooy li gën a wér ci ngirum Shafii mooy daal bu dëkk yi soree ñu considéré ko bu buñ sorewut kenn du ko considéré loolu ko dellu ci almajmu sharhul muhazzab bu imam nawawi da nga ko fekk ba tey mugnil muhtaaj ba tey ku fa dellu itam da fa fekk wax jooju kon loolu waxub ñetteel la boo xam ne moom bu dëkk yi jegee kenn du ko considéré bu bu soree nag ñu doog ko considéré ñoom ñu wax loolu nag ginnaaw ba nag ñu wuute ci nan lañuy xamee ñaari dëkk yu jegee ak ñaari dëkk yu soree ñu ne ñaari dëkk yu soree de niñ koy xamee mooy ñoo xam ne jant ba du fa fenkandoo ñu joxe misaal daan ne mi ngi mel ne diggante Arabie Saoudite ak Irak ku mu neex ma ngaa gëstu distance bi ndox diggante Arabie ak Irak ñaata la mbaa diggante Arabie ak Xuraasaan ba itam ku mu nga gëstu diggante bu soree sore la boo xam ne ëpp na junniy kilomètre mu ne bu fekkente ne soree na noonu moom subaa dañ koy considéré daal ne waaye nag bu fekk bu dee daa jegee nag moom moom des ko considéré jegee gi tam ñuy wax ci misaal dal ne lu mu mel na diggante Bagdad ak Kuufa dégg nga Bagdad ak Kuufa moom taxu ko soree lool mu sax deux cent kilomètres ñu ne bu demee noonu moom deesu ko deesu ko considéré dégg nga loolu kon benn wax la ci diggante dëkk yu jegante ak dëkk yu soreyante Eh, am na beneen bu wax ci wàllum soreeg ak jege gi ñu wax ne soreeg ak jege ji daal ñu ngi koy xamee ci bu fekkee ñoom ñaar dañoo bokk dañoo bokk al aqaalim mooy bokk dig-digal buñ nekk bu fekkee ñoo bokk dig-digal buñ nekk lu mel ne bu doon ci Afrique maanaam dëkk yi nga xam ñoo bokk al xattul istiwaay maanaam eh, xattu Greenwich bi ñoo ko bokk su boobaa ñoom ñoo bokk iqlim su boobaa léegi ñoom ñooy bokk mat na wa bittaali maanaam duñ considéré euh, fenktal weer yi dëkk dëkk yoo xam ne bokkuñu iqlim nag nga xam ne heure yi moom du fa bokk su boobaa nag ñu doog ko considéré loolu wax la boo xam ne euh, nettal na ko euh, borom xam-xam magam ba tudd ibnu xajar ci fathul baari am na ñetteelu wax ci wàllum dëkk yu soriante ak jegeantoo ndax dañ ko considéré wala ñu ko considéré ñu wax ne ni ñuy xamee dëkk yu soriante daal mooy bu fekkee diggante ñaari dëkk yi mat na doxub wàññi subaa dëkk yi soriante nañ ah loolu nag su dee loolu la moom ba taxu koo bare ndax doxub wàññi moom daanaka quatre-vingts kilomètres wala quatre-vingt-un la ñuy wax daal ne dëkk yu jegeantoo nag mooy ñaari dëkk yoo xam ne maanaam dañoo maanaam yées na doxub wàññi loolu borom xam-xam mag a mag bu tudd imaam al-Haramayn al-Juwayni borom xam-xam bu mag a mag eh, moom bokkoon ci ñuy wax loolu ak xujjatul islam al-Ghazali imaam Ghazali bokkoon ci ñuy wax loolu badari am imam bagawi itam moom ci ngirum saafiaya moom it loolu la wax te lol sa la ne mooy li wér kon dangay gis ne fofu batay ne pour kon pour kon manam ñu bañ considérer euh ñu bañ considérer wala bokku ñu considérer euh, wut ak tank tay kon day xawa jafé ndax gannaaw bu xasse manam bu fekkante ne yees na doxu wàññi rek des considérer te kon wala boog day xawa yomb la bëgg wax ñu considérer day xawa yomb ndax bu xasse ma doxu wañi rek te doxu mo moom wut loolu kon euh, lu lu lu maanaam lu lu yomb lay doon kon lu yomb lay doon kon am na beneen wax boo xam ne dañ ne ñoom bu fekkente daal ñaari dëkk bu weer feeñee mën nañoo koo gisandoo ca saasa ñooñu moom ñoo bokk mat la tey jii bu fekkente ne weeru heure bii feeñ Sénégal boo demee Mali ci même heure booba yéen a koy séentoondoo nga dem Niger ñu koy séentoondoo su boobaa ñom ñoo bokk mat la dañu wara a woorandoo war a warendoo même fekke da feñ fi fii te feeñu fee bu fekkente nak ñom ñoom ñaar duñ ko gisandoo xanaa wewe day feñ fi ba mu deñ ñu da ko gis fee comme ni suñu digënté wa mak nga wa mak ñom manam ñun buñ nekké ci 4 heures ci ngoon wala 5 heures fekk na ñom ñu jullit ba ba giss wër wa ñun dañ dem après ñetti waxtu doga wër doga ak ci manam do do do jënt bi doo sox ñu doog mëna giss wër bu fekkee non la démé nga xam ñun ko duñ ko giss ne ci benn waxtu bi suba léegi ñun bokk mat la lolu ab wax la ci waxe borom xam ci digënté ñaay dëkk yu sore ak nyai ñaay dëkk yu kon ci dëng bu gatt ñetti waxtu yoy moy yi am wala bok ñetti wax yoy moy yi am moyi ñu né kenn du considéré wuté pengetal jant yi wax na la borom xam yi ko wax ñaarël bi moy dañ koy considéré mutlaqan ci lu mëna a doon lulut ñuy xol li ak lé dama borom xam yi ko wax ñetteel bi mooy ñoo xam dañ ne kenn du ko considéré bu fekkee diggante ñaari dëkk yi dañoo jege waaye dañ koy considéré bu fekkee diggante ñaari dëkk yi dañoo sore loolu te wax naa la boroom xam-xam eh, yi ko wax. léegi nag mu des lan moo waral wuute bi li waral wuute bi Ibn Rushdin mi ngi koy wax ci téere mi tudd Bidaayatul Mujtahid nee na li waral boroom xam-xam yi wuute ci masala bii nii. mooy daa am lu tudd ta lu nuru taarud lu xew taarud mooy lu contradictoire lu xew ci diggante liñ jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa ak liñ jële ci kurayb boo xam ne mi ko jël ci abdullahi ibnu abbas nee na ñaari wax yooyu dong moo waral wuute bi am loolu moo waral wuute bi am kon bu fekkee Eh, ngirum Shaafi'i la moom wax naa ko sànq al mu'tamad indahum mooy mooy ñu considéré wuuteeg penkte yi ñu ñu considéré wuuteeg penkte yi waaye li gën a siiw ci ngirum Maalik moom mooy ñu bañ koo ñu bañ ko considéré loolu moom mooy mooy li li li nga xam ne mooy li am am na ci diggante bi ñeneen wax mooy ñu xool ba xam ndax dañoo jege walla ndax dañoo sore bokk na ci li borom li tax borom xam ne wuute ba léegi mooy wuute guñ wuute ci seenu déggiin borom xam ne daanaka masala yi ñu wuute yëpp la ci ëpp bokk na ci cause yi tax ñu wuute mooy wuute ay déggiin wuute ay déggiin ndax daanaka ñoom ñëpp ku ci wax da ngay tegtaloo xadis bi yéen soo xam ne suumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi woor leen bu nga ko gisee woor leen bu nga ko gisee léegi nag baatu gis gi nag li ru'yatihi googu nag léeg-léeg xamé wuté ci ay firiyin lol lol bokk na ci tax ñu wuté gis nga même texte bi lañuy lañuy ñuy waye wuté ñu ko dégg tax na ba ñu wuté ci ay ci ay ci ay gis-gis ñu wuté ci ay gis-gis bu dé suñu jamono ji nak man nañ ci yok benen bo xana bokk na tax ñu wuté moy par par lo waaw amna ño xamné mom dëgg-dëgg bu ñuy wax ci mbirum weeru mom xam-xam rek lañuy wax mo leen ñor xam-xam rek lañuy wax te moo leen ñor la ñuy wax dañ ko maîtriser bu baax waaye nag am na beneen kuréel ci suñu réew yi ñoo xam ne moom dëgg-dëgg xam-xam sax mën naa am nekku fa wala bu fa nekkee itam par parloo muur na seeni bët ba ba la ñuy wax xool ñu te yàlla xool ñu ca xam-xam waaye dañuy ràcc jëm seen kanam ngir bëgg fañ bokk rek maanaam fañ bokk na am dëgg loolu nag jàpp naa ne du doxeenu boroom xam-xam moo tax mbirum weer wi fii ci suñu réew jàpp naa ne bu fekkonte ne dañ ko bàyyee woon ak borom xam-xam yi dong dañ ko bàyyee woon ak borom xam-xam yi dong jàpp naa ne léegi mu lijjanti ko bañ cee boole parparloo bañ cee boole kër gi laa bokk mbaa bañ cee boole mazhab bi laa bokk mbaa bee bañ cee boole di wut wala intérêt àdduna di wut wala intérêt àdduna su borom xam-xam yi dong seqoon mbir mi jàpp naa ne danañ am solution danañ am solution waaye dañ cee boole yu bari xam ne. yo xamne bokku ci tayé danañ danañ ci ñëw ci ci ci kanam insha allah amna na gëstu kat yo xamne dañuy wax ne bokku na ci li waral borom xam-xam wuté ci mbirum wër wi tam moy suñu rawante ci walu xel ak rawante ci walu xam-xamu ilmul falak eh, ci seen jamono da ñu dañ ne bu dé masala bi dal masala xam-xam la masala xam-xam la avant muy nek masala fiq masala xam-xam la bu ñu ko waxee mooy maanaam xam-xamu maanaam science daal la gën a jege ci eh, xam-xam boo xam ne ittihaad lañ koy doxee su ko defee kon ma ñëw ci tegtali boroom wax bu njëkk bi te mooy ñi wax ne kenn du considéré wuutab penktal weer yi ci adduna bi yëpp fenn fu weer feeñ daal ñepp dañu massa wara massé wor maase bu dé jamonoy koor la bu dé war ñepp dañu wara war ndo seen tektal bokku na ca li wax ci alquran né fa man shahida minkum shahra falyasum ñu né yalla daf né sa yu weer feeñee na ngeen wor ñu né fa man shahida fi limi tekki tekkiwut ne bu ngeen gisé weer waaye bu weer feeñee la yalla djublu ndax li tax ñu ne yalla djublu bu ngeen gisee weer moy wèr mom ñepp duñ ko gis wèr wi ñepp duñ ko gis ben ben quartier bi nga nek sax ñen rek ñu tay gis wèr wax ko ña ca des ñu ñu dépendre ci dégg nga région bi nga nek itam kenn ko ci gis wax ko wa région bi dépendre ci dëkk bi nonu réew mi nonu ñu nak comme la démé nga xam famu fa mu seen minkum mom nangu nañ ne nangu nañ ne bu dem fi ci Sénégal la su ko Dakar gisé xibaar ko waa Tamba dañ caa war a sukkandiku ngir na ñoo bokk réew mi te pourtant weer yi mën naa waa Tamba gisuñu ko waaye waaw Dakar ñoo leen ko wax comme noonu demee famun shahida mooy bu feeñee kon nag waa Dakar di sañu informé waa Australie sañu informé waa Espagne ba tey ñu ñu sukkandiku ci loolu ndax amul benn texte boo xam dafa ñëw limité famun shahida fan la yem amul benn texte bu ñëw limité famun shahida ji fan la yem dégg nga te ku ne xam na ne weer wi du ñëpp koy gis ndax euh, bari waa na sax ñoo xam ne ñu ngi woor fi mu nii te gis ñu weer wii feeñ dañ leen koo wax dañ leen ko xibaar dégg nga ndax du ñëpp koy gis am na sax ñoo xam ne far duñ gis ñoom seeni bët neexut dégg nga wala sax ñu xil maxa bala ñu gis weer nga xam ne ñoom mësuñoo gis weer dañ leen informé rek kon fa man sahri minkum shahran mooy bu fekkee weer yu feeñ na rek saa yu feeñee daal na na na maanaam nañ ko woor kon saa yu feeñee ci adduna bi na ñëpp yëg ne weeri feeñ dëkk sàngam kon ñëpp war a maase woor ñëpp mën a maase woor loolu kon bokk na ci seeni seeni tegtal ñu ne bu fekkoon yàlla daa yàlla daa jublu fa man shahra minkum shahra pare suuf daa jublu wax rek maanaam dëkk bi ko gis dong dong ñoo war a kon day mel ne bu benn dëkk bi bu ko quartier bi gisee dong beneen quartier bi gis ñu kon day mel ne waa quartier ba dong dong dong ñoo war a woor waaw ba tey kon loolu lay tekk gannaaw may nañ nag waa quartier bi informé waa quartier bee waa quartier bee informé ba ca des bee informé ba ca des muy law ba àgg ci beneen région subaa itam kon mën na àgg ci beneen réew mën na àgg sax ci beneen continent ndax amul leen lu koy xayd loolu benn la ñaareel bi mooy bu dee ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi moo wax ci xadis bu wér ne laa tasuumu xata tarawul xilaala bu leen woor mukk lu dul ngeen gis weer wi wala tuftiru xata tarawhu bu leen dog itam lu dul ngeen ngeen gis weer wi dana fa in gumma aleykum bu jant bi bu wala bu asamaan si nëbboo ci yéen lëndëm faqdiru na na ngeen ko na ngeen ko nattale beneen xadis ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi woor leen bu ngeen ko gisee wari leen bu ko gisee wari leen bu ko gisee wari leen bu ngeen ko gisee dégg nga kon ñaari xadis nag yoo xam ne yëpp yu wér la xadis yëpp bu ci nekk mi ngi ci albuxaari ak euh, muslim muy xadis yoo xam ne kon seenu wér moom kenn sikk saa kaw ko euh, ci li nga xam ne moom la borom xam-xam yi jullit yi ñi seen xam-xam wér te màcc jëm ci xelmul xadis wax kon loolu bokkoon seen tegtal yonent bi sallallahu nee na laa tasuumu hatta taraw bu len wo lu ngeen gis ñu ne kon sa yu gis amé kon sa yu gis amé rek kon dañu wara a woor wara war ta woor wara wor gogu woor googu itam yonent bi waxuñu waxuñu ñay woor ak ñërul woor ndax hadith bi dafa ñew di wax ak jullit ñi ñepp ba natt mu itlaq ko ta borom xam-xam usul dañu wax ne al mutlaq yajri ala itlaqihi maa lam yaqum dalilun dalil maa lam yaqum dalilu taqyid lépp lu lislaam digle itlaaq ko dañ koy boyal ko maanaam dañ koy bàyyi noonu mu boy li fekk amuñu beneen argument beneen dalil bu ñëw ngir tënk ko ngir tënk ko léeg-léeg alxuraan ñëw boyal dara sunna ñëw tënk ko lu mel ne ci sàcc yàlla def ne ne ko rek dagg leen loxoom waaye waxu fan lañ koy dagg su ko bàyyi woon noonu rek te sunna léeralu ko mën naa am ni sàcc ñu ñëw dagg concali mbaa ñu dagg ko sax ca màgg ma waaye nag bi am ginaa bi alxuraan itlaaqe xaydi bi am ci sunna ñëw na loxo saati ka ñu ko dagg ci tikku jaara loolu moo ko xaydi léegi nag bu dee xaris bii fii moom yonte dana bu nga gisee weer woor leen bu ko gisee wori leen te xaydu ko waxut fu mu yem kon loolu day wéy ci mboolem julli ñëpp ñoom loolu bokk na ci seen i tegtal ñoom waa wax bu njëkk bii nga xam ñoo ne kenn du considéré maanaam ixtilaaful mataalih mooy eh, wut ak penktal penktal eh, weer yi kon ñu ne kon saa yoo xamee daal wóor nañu ne weer yi feeñ na duñ xool ban dëkk ko gis waaw duñ xool ban dëkk ko gis soit adduna bi lépp ñëpp la engagé ñëpp wara woor loolu eh, loolu moo tax buñ xoolee Fathul Baari dañ gis imam Ibnu Hajar di wax ne kon saa yu weer feeñee fenn daal adduna bi ñëpp a war a woo te xool sax ñu koy gis ak yooyu lool kon seen tegtal la bokk bokk na seen tegtal ba tey ñoom waa wax bu njëkk bi mooy loo xam ne ijma la kon am nañ tegtal ci alquran tam ne fa man shahida minkum shahra falyasum am tegtal ci hadis mooy suumu li ru'yatihi am nañ tegtal ci ñetteelu ñetteelu masdar ci masadiru tashri ñetteelu delluwaay ci delluwaay lislaam mooy al ijma ijma mooy da dajeg saxaaba ndax ibnu Qudaama ci al ni nee na ak yépp yëpp yépp yëpp daje nañ ci ne woor weeru koor day war bu fekkente ne weer wi feeñ na te am ay fiqaat yu ko gis maanaam nit ñu wóor ñoo xam ne ñoo ko gis mu ne loolu su amee woor war na ci mbooleem jullit yépp loolu ibnu Qudaama wax na ko ci al-Mughni dégg nga kon day mel ne kon nettil na foofu ne ijma am na ijma am na ndax wax gum wax ne saa yu weer feeñee daal ñëpp la engagé jullit yëpp a war woor kon loolu day wane ne kon ijma am na ci dégg nga eh, nga xam ne su boobaa attey koor ak woreek attey eh, faseek attey iddaak yëpp das koy mën a takk ci loolu ci weer woowu ñu am tam leneen luñ tegtaloo ci wàllu qiyaas lislaam delluwaay ji gën a siiw te gën a wér ci fa ñuy dellu mooy ñeent yooyu alquran sunna si yonte bi sallallahu alayhi wasallam ijma ak qiyaas dégg nga ñu am kon tegtalum ñeenteel ci qiyaas tegtal bi mooy ñii wax naan weer wi kat dëkk bu ne day am sa gisu bopp dégg nga ak eh, maanaam di wax ne kat dëkk bu ne fii lay tàmbalee fii lay yem wala boog maanaam soriwaay bi nii lay toll nee loolu loolu ay wax la yoo xam amul tegtal amul tegtal denga, amul benn tegtal buy ñëw di wane ne kat gisu weer wi ci dëkk ci gox sàngam nangami kilomètre mbaa nangami mil mbaa doxum nangami fan lay yam dégg nga loolu kon ñàkk gum ñàkk am tegtal tax na ba kenn du ko considéré kenn du ko considéré waaw ndax euh, bokk na ci sax mooy léeg-léeg am na dëkk yoo xam ne am na dëkk yoo xam ne euh, maanaam xëy na colonialiste yi ñoo ko séparé ñoo ko séparé waaye benn dëkk la woon léegi nag xel na nga wutit dëkk boo xam ne benn la woon nga xam ne kon day mel ne bu doon bu njëkk seen lislaam moom da leen a digal ñuy woorandoo di woorandoo ñëpp daa ko ci doon ndax benn dëkk la bu ñëwee ba ay tubaab ñëw jóge fële ci àll ba ñëw xaaj dëkk ba dégg nga séddoo ko may ñee indépendance masalan may ñu ko njëmbaa séddu ko ñaari dëkk ñu jàpp seen bopp léegi ñaari réew yu bokkut wala dëkk boo xam ne sax ñenn ñu ñu fépp rek ba am seen indépendance am sen constitution bop am sen état bop ñu mujj nek dawla ci biir dawla ñaari dawla yu bokut suñu bëggé né lék comme ñaari réew yi ñu ko seen atté day wuté ñeem nañu gis wér té ñi duñ ci duñ ko duñ ko duñ ko d'accord té ñoom bëgg dé mo ñaay ñoo bokkon ben dëkk bi bokku ben loi lool tam day xawa yéme lool tam day xawa yéme motax ñun daal ñoom duñu considérer dëkkënte dëkkante soy way ak ak way ndax lool amul dalil kon loolu ab wax la ci wala boog ay tegtal la lenn la ci ay tegtal yi nga xam ne borom wax bu njëkk bi tegtaloo nañ ko ma ñëw ci tegtal yi euh, ñi wax waxum ñaareel bi su dee waxum ñaareel bi ñoom it am nañ ay tegtal même aaya bi nga xam ne euh, waa waxum njëkk moom lañ tegtaloo moom moom lañ jël tegtaloo ko tamay fa mun shahida minkum shahra falyasum ñu ne yàlla dafa bëgg wax ne fa mun shahida minkum shahra mooy fa man raahu ku ko gis daane loolu nag kon ku ko gisul bokkut waaw kon bu suñu réew mi gisee weer wi beneen réew bu ko gisul moom ñoom bokkuñu ñoom bokkuñu ñoom kon loolu bokk na ci seen i bokk na ci itam ci sunna ci sunna nag moom foofu la coow li nekk nag ndax dafa am benn xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Kurayb Kurayb ab jaamu Abdullah ibn Abbas la woon Kurayb daa wax ne umul fadl bintul xaaris da ko yónni woon ci Muawiya ca Cham Cham buñ ko waxee léegi mooy e, bu njëkkoon yamanak siri dëkk yooyu noonu nee na ma dem Cham dox aajuñ ma yónni ba noppi weeru ko daal fay feeñ daal di teru fekk boobu maa nga Cham ñu gis weer wi guddig ajjuma léegi nag ma daal di ñëw Madina ca njeexeetalu weer wax mooy bu weeru koor way jeex fekk fi sama sanga bi nga xam ne moomu yónne mi Abdullah ibn Abbas mu tudd fenktal weer wi daal ne ma kañ ngeen gis weer wi yen ca Saam ne ko ñun de ñu ngi ko gis guddik ajjuma man mii sax gis naa ko waaw wala boog Abdullah ibn Abbas ne ko ndax yow gis nga ko mu ne ko naam man mi gis naa ko te nit ñi itam ñu baree bare gis nañ ko dal di woor Muawiya itam daal Muawiya itam daal di woor moom it nee na Abdoulaye Abbas ne ko waaye ñun moom li jaaxal mooy ñun guddik samedi lañ ko gis loolu moo tax ñun dañuy continuer di woor ba keroog ñuy am fanweeri fan mba bok ñu gisaat weere mu feeñ leer nañ nee na bi ne ko ndax gis gisub Muawiya dalaa doyut ak kooram ga Ibn Abbas na ko déedéet waaye lii lañu ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal hagada amarna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadis boobu daanaka fa wuute bi départ fa la wuute bi départ léegi ñi wax ne dañuy considérer wuute penk tey ñoom dañ ne li tax mooy ndax Ibn Abbas kat sukkandiku wut ca gisub waa Saam sukkandikuut te gisub waa waa Saam te la tax sukkandiku tam nee na mooy ndax daa wuute la yonent sax digaloon ndax daa wax ne hakaza amar naa rasulullah sax mooy dañuy continuer di woor te dañu sukkandiku te gis benn ndax lii la yonent sax digaloon dégg nga loolu kon bokk na ci seeni tegtal bokk na ci it beneen tegtal mooy xadis bi nga xam ne Abdullah ibn Umar moo ko nettali jele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne laa tasuumu xataa tarawul hilaala wa tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaykum faqdiru lahu bu leen woor lu ngeen gis weer bu leen lu ngeen gis ko bu leen na ngeen ko na ngeen ko nattale fofu ñu ne gis nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gal koor gi ci bu ñu gisee wi ci suñu dëkk ci suñu dëkk ñom loolu lañ wax ndax man na am dëkk ñom kon wor du len war kon ñoom tam am na tegtal ci wàllu sunna ba dee tam ñu indi tegtal ci xiyaas xiyaas ba itam mooy comme ni waxtu julli wuutee ndax wuuteeg tenktalu jant bi te loolu moom lu ñu considère la nga xam ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci loolu noonu noonu itam la la ñuy wuutee ci wàllu woor ak war yi ndax wuutel wuuteeg tenktal weer yi wuuteeg tenktal weer yi kon loolu xiyaas la dañ ko kon dañoo wuut ak tenktal weer wi ci bañ a woorandoo ak worandoo diggante dëkk ak dëkk comme ni ñuy wuutee ci julli yi ndax wuuteeg tenkital jant yi diggante dëkk ak dëkk ba tey itam ñu tegtalooy jëfi saxaaba yi ndax nee nañ mosuñoo gis mukk Omar ibnul Xataab ak xalifa ba ko jiitoon muy ah, muy Abubakar Siddiq ak xalifa yi ñëw seen ginnaaw ne daanañ def bu weer feeñee ñu bind ay leetar mbaa ñu yónni ay ndaw yëgle ko te bu fekkonte ne su weer feeñee ci ab dëkk ñëpp a war a woor fekkonte loolu mooy la wér kon saxaaba daanañ kon saxaaba yi jidoon jullit da daanañ def bu weer feeñee ko ñu yónni ay ndaw ñu yëgle ko fépp ndax ñëpp a war a woor daana nag kenn mënut a imaginer saxaaba yooyu nga xam ñoo jiite woon jullit ñi nekk xulafaa ul muslimin xulafaa ul rashidun kenn mënut a euh, imaginer ñu néewal maanaam mbirum diine noonu ñu xaw ko sàggane noonu daal ba weer feeñ duñ ko yëgle te mosu ñoo gis fuñ ko yëglee am nañ tam luñ takkiloo ci wàllum xel ñu ne euh, sabab bi nga xam ne mooy tax ñu woo daal mooy weer te lii tax ñu jàpp ko mooy mu feeñ aw nit gis ko kon gannaaw nag ixtilaaf yi matale am na nga xam ne moom weeri mën naa feeñ fi du feeñ fee loolu moo tax kon dañ koy considéré dañuy considéré ixtilaaf matale ba duñu woorandoo duñu wareendoo su ko defee kon ñooñu ñoom itam loolu mooy seen lay léegi nag ñu ñëw ci jéem a jàngat seen lay yooyu léegi nag boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo wax ne moom wuut ak fegital weer kenn du ko considéré ñu tegtaloo ci xadis suumu li ru'yatihi foofu am na ay jàngal yu ci borom xam-xam yi def ñu ne suumu li ru'yatihi kat dëgg la mutlaq la waaye am na beneen xadis bu koy xayri te laata laa tasuumu xatta tarawul hilaala bu leen woor lu dul ngeen gis weer wi bu leen dog lu dul ngeen gis weer wi te itam bu lëndëmee na ngeen nattale ñu ne loolu kon loolu kon faqdiru lahu jiyante sama wax moy kon day wane na kat sumul yote ji an qaid moy bu len demé ñun ci suñ gox bi nekk ñun manam nañ neggnduko ko leer dal bam mu leer waaye duñ nekk ci ñeneen lolu la ñen ñi di tontu wa wax bu ñëkk bi nga xam dañ mom kenn du considérer manam wut ak peñtal wéri ndax li mo seen tektal denga euh lolu kon ay wax la yo xana wax nañ len ko batay ñu ne xadisub suumu li ru'yatihi batay batay ab tënk la batay ab tënk la ndax li ru'yatihi moom mooy wane ne dëkk bu nekk rek waxtu mu koy gis mën naa wuuteeg dëkk ba ko ñeneen di ñeneen ñeneen di gis dégg nga ñu ne yent bu mu ne suuma li ru'yatihi ku ne xam ne mu ngi jublu maanaam buñ ko gisee avant jant di maanaam ba jant soo waye du tegg na mutlaqan la ndax mu naan suuma liru atihi mën naam jant bi so ci ñun ñu gis ko te fek am dekk bo xamne ñu ci seen sogut kon ñun ñu lolu lu loolu engagé kon ah, loi bo dal seen kaw ñu ne kon lolu tegte ci ne sumu suuma liru atihi moom nekkul mutlaq waye waye day nekk muqayyad lek lek waye itam ba wax bu njëkk bi tontu wat ñom itam da benen tontu dan ne dan ne wax gi wax ne laata suumu xata tarawul hilaala dafa ñëw ngir xayda xadis bu njëkk ba te mooy suumu li ru'yatihi loolu waxla joo xam ne ñu dëgërul la ndax alxitaabu char'i mooy bépp appel boo xam ne lisaan da koo def day nekk am day généraliser dugal ñépp dugal ñëpp ba keroog muy am lu génnee ñenn daal na ñaari xadis yooyu wuute wuñu ñaari yooyu wuute dal na sax xadis bi ngeen tekkeloo sax ngir bëgg a dàq suñu xadis bee te mooy laa taraw la la la la tasum xata xata tarawul xilaala ñun xadis boobu sax moo gën a far matale moo gën a eh, far matale loolu moo tax borom naylul awtaar di wax ne xadis bi kat waxut benn dëkk bàyyi bee daf ne rek bu leen woor lu ngeen gis weer wi bu leen war lu ngeen gis weer wi kon kooku ñëpp a dugg ci biir ndax sharia moom buy joxe appel ñëpp a ci dugg ba keroog muy am nag ñu mu génneem ñu am dalil preuve bu lee boone na kat ñii moom bokkuñu ca dégg nga faman seere min comme ji nga xam tam ñee ñu ngi koy contesté ñoom ba tey itam ñu tontu ci ne yàlla daa wax ne eh, faman seere min comme sehra mooy bu ko ñenn gisee na ñeneen ñi basé wu ci loola ba woor dégg nga ndax weer wi moom ñëpp mënuñu koo gis su lo lo kon ñi gumba kon day mel duñ wor ndax duñ gis wer ñi seen bët faible itam nga xamne ci gis neexut day mel ñoom itam pour ñu wor il faut ñu effort ba gis wer wi nga ko xam tam sàggan nga ba jutoo seen tuyo ba gaat tam gisoo ko day mel kon lolu engagé wala lolu nak kon kon euh, ñu ne wax ju la kon fam seere mi kum seere mom moy bu ko ñen gisee dana doy ñu inform ñi ci lo ñepp di di nga kon lolu Euh, ab jàngal la ci lay boroom xalaat bu njëkk bi ñoom tontu nañ maanaam am nañu contesté seen lay yooyu waaye ñoom tam ñu ñëw daal di daal di tontuwaat ñu daal tontuwaat bu dee nag waa waxum ñaareel bi nga xam ne ñoom dañ ne eh, dañuy dañuy considéré wuuteb gisu weer yi ñoom seen lay yiñ indi am na ñu ko munaaxasa ñu ko jàngat daal ne wax gi ngeen sukkandiku ngeen sukkandiku ci xadisu bu boobu nga xam ne dane na abbas dane hakada amar na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy lii lañ yonte sonon digaloon ñu ne loolu abdullah ibnu abbas jubluwut ne dafa am beneen xadis bu mu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci masala bii nii bu koy wax ne ko kat su dëkk bee gise weer te gisoo ko bul woor xadis boobu moom amut waaye lim nam mooy xadis boobu jàlloon sànq rek te muy suumu li mais xadis bi digle ne woor leen bu ngeen ko gisee ak xadis bi yonte waxoon ne laa tasuumu xataa tarawul hilaala dégg nga te xadis boobu noonu nag nga xam ne ci la Ibn Abbas sukkandiku moom waxut dëkk bi ak dëkk bee ñëpp la yàlla jublu ñëpp la yonte bi sallallahu alayhi jubloo wax ñëpp la yonente bi jubloo wax kon Ibn Abbas wax gu wax ne hakada amarna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne loolu nekkul ab texte ci masala bi kon dégg-déggam la moom ibnu abbas te dégg-déggub sahaaba yi nag moom du nekk xojja lu dul ne sahaaba yëpp dañ cee ànd ak moom maanaam dégg-dégg ab sahaaba yi ab sahaaba bu defee ijtihaad ci masala balay nekk xojja day fekk sahaaba yëpp ànd ci ak moom waaye moom dong bu wéete ci benn masala wax ab wax loolu du nekk xojja ci ñëpp du engagé ñëpp ci lislaam am na ay wax yu bari yo xamne ne day rek ben sahab mo koy wax wuti tak ñeneen des na ko nangul lam wax waye nak du tax ñu def ko argument du tax ñu def ko hujja ci ne li moy li wer ndax ab sahab moo ko wax ndax lam wax mom kessa moko wax ta mom la engager ko ne ga japp rek ittihad mo xam mag yep sañ nañ ko ñu ne ibnu abbas bimne ne hakata amana rasulullah sallallahu Alaihi wasallam bu fekkon tane lola sahaba yep dañ ko cee fekk and ci ak mom kon foko yi dañu wuté ginnawam mukk dañu wuté ginnaawam mukk ñi naan dañ koy considérer ñi naan dañ ko considérer denga nga euh, su boba kon euh, lolu kon bok ci bok ci seeni seeni lay waye tam ñee tontu len tam tontu len kon layub kurelum ñaaral bi mom la yenen borom xam di tontu dégg nga ñu ne it soriyantoo gi ngeen wax ak jegeyantoo gi itam amut benn cëslaay amut benn wéeruwaay ci sariyan loolu moom xel rek moo ko andi ndax aslan sax léeg-léeg dëkk yi ni ñu sore ak ñuy jege loolu ñun ñoo ko rëddal suñ bopp ñoo ko rëddal suñ bopp fii ci Afrique am nañ réew yoo xam ne benn lañ woon waaye dañoo xëy xëy xëy na ñoom ñu séparé seen bopp mbaa ay noon ñëw séparé leen kon nag loolu moom mbirum xel la rek ak mbirum àdduna waaye du mbirum diine du mbirum diine kon loolu kenn du ci tegtaloo ba naan ñee ñoo sañ a woo ndax gis nañ ko ñee sañ ñëw woon ndax gis ñu ko ndax séparation bi ñoom ñoo ko seen bopp waaye gox bi benn la woon dëkk bi benn la woon ñu ne itam xadis boobu tam wax ne laa tasma boobu tam fii benn yoon buy wane ne xadis bi kat ñii lay waxal bàyyi ñee xadis bi daal daa généralisé la wax ba tey itam waa kuréelum ñaare wax giñ wax ne mosu ñoo gis benn xalifa ci xalifa jullit ñi du aboubacar du omar du ousmane du ali koo xam ne weer mas naa feeñ mu bind ay lettre yónnee ko ci gox yi mbaa mu yónni ay ndaw loolu lañ ca tontu mooy dañ ne ndax booba maanaam yónni ab lettre mu jógee dëkk jëm ci beneen gox yombut woon ndax soo ko masaan def ay fan lay jël mën naa am sax lettre boo ko bindee di ko yónnee ci beneen dëkk beneen gox lettre ba àgg sax weeru far jeex booba jafe woon na lool weer feeñ ñu fexe ba ñëpp yëgandoo ko ndax mooy ni demewut noonu yëgle jàppandiwut yónnee it déplacé diggante dëkk dëkk yombiwut noonu loolu mooy seen tont ci loolu ñu ne kon loolu kon kenn waru ci sukkandikoo bañ a rek su fekkonte ne maanaam bu weer feeñee fenn ñëpp a war a woorandoo kon xalifa yi daanañ ko yëgle ñu ne ah kay xalifa yi maanaam amuñu woon moyen amuñu woon moyen loolu moo tax kon loolu tam ci tont yi la bokk ñu ne it sukkandiku ñun sukkandiku ci wuuteeg jant bi ci ne tisba day jot fee te du jot fii ñu ne loolu sukkandikukaay la boo xam ne njuumte la sukkandikukaay boo xam ne njuumte la ndax bu dee jant bi moom dañu am texte bu wér a wér ci alquran boo xam ne moo ñëw ne aqimi li dudooki shams yonte bi sansan ñëw gën koo feddli gën koo firndeel ci ne kat tisbaar waxtu sàngam lay tàmbale ci adduhur takkusaan it bu jant bi melé sangam lay tim timisit bu jant bi soré lay tambalé geyit mu wax nan la suba gi nonu kon lolu mo amna tax bu wéré wéré wér yu ca ñëw moo tax amu e ca ta ku ne xamné dëkk yi tollu wuñ waxtu jant bi fenk tollu waxtu jant bi nek ci diggu njolloor tollu waxtu waxtu jant yi sox lolu motax kon bu ngeen ci bëggee xiyaas weer nag moom da ngeen a juum ndax weer moom weeru ramadan muy weeru koor yépp wenn weer la ci at mi wenn weer la ci at mi dégg nga te itam fexe ba mu nekk wenn weer ñu tàmbalee ndoo ko jeexaloo ndoo ko loolu amul benn coono bu ci nekk lu mën a nekk la lu mën a nekk la ndax ay texte ngi fi yoo xam ne loolu la diglee waaye itam am nañ ay moyens yoo xam ne mën nañ sukkandikoo ba mën a def loolu kon loolu lépp ci seeni lay la bokk ñu ne ndax su weer feeñoon tey jii bu weer feeñoon tey jii fu mu njëkk a feeñ bala bis ba jeex ñepp mën nañ ko mën nañ ko yegg te aduna bi daanaka amu ci benn réew bu jiitoo moromum réewam lu ëpp fukki waxtu ak ñaar waaw amu benn réew bu jiitoo benen réew lu ëpp douze heures de temps dañuy wax am na sax ñuy wax naan dëkk bi ëpp lu mu soree ak yeneen dëkk yi mooy neuf heures de temps la ñu ne kon bu jant bu weeru feeñoon tey bala bis ba jeex beneen dëkk ba nga xam ne moom xëy na ña nga ci seen suba mbaa ña nga ci seen tisbaar balaa guddi gaa jeex ci ñoom xabaar mën na faa àgg loolu moo tax maanaam pour ñu woorandoo moom lu yomb la par rapport ak julli julli yi julli yi nga xam ne moom ay waxtu yu gàtt la te jant bi la dépendre dégg nga kon loolu ba tey ay tontu la yoo xam ne yenn borom tontu nañ ko waa waxub wala ñaareel bi waaw buñ xadis boobu nga xam ne wax naa ne daanaka moo waral coow li ci mbirum weer te muy xadisu kuréy boobu mu nett di jële ko ci abdullah ibn abbas eh, borom xam-xam yi jangal nañ ko lol wax ne ibn abbas wax gum wax ne hakaza abarna rasulullah sallallahu Alaihi wasallam Mom ñinga xala mom dañuy considérer wutek penkatal weer yi ci hadith bobu lañ sukkandiku ñi di leen tontu tam dañ ne leen hadith bobu kat deug la abdullah ibn abbas mom moy ki solo hadith bobu sax mom wala bok kenn la ci ñiko solo kon ba ne hakaza amana rasulullah sallallahu alayhi wasallam daa jubloo wax ne maanaam yonte daf ñoo digal ñu mottile waaye jubluwut beneen xadis bu bees bu mokkal te ñu ne ñu ko jubluwut beneen xadis boo xam ne koo mokkal te ñeneen ñi gis ñu ko waaye wax gu wax ne dañuy konneri woor ba keroog ñi matal fanweer daan na hakaza amana rasulullah sallallahu alayhi wasallam daa bëgg wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo digal ñu mottili waaw ndax taan suumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi dog leen ba kenn ngeen koy ba kenn ngeen koy gis kon daa bëggoon wax daal li des ci koor gi moom damay continuer di woor ba kenn ngeen gis weer ndax lii dama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon waaye jubluwut ne daa am beneen xadis bu mokkal boo xam day wax ne kat maanaam dëkk bu ne day day dépendre ci ab gisam dëkk bu ne day sukkandiku ci ab gisam waaw loolu euh, wax la boo xam ne wax yi borom xam-xam yi la teewul nag moom am na ñu sukkandiku ba tey ci xadis bi rek def ko muy seen dalil ci ne daal dëkk bu nekk eh, ak ab gisam eh, waaye pour tënk rek ginnaaw bi ñu waxee wax yi ci am ci waxi borom xam-xam yi wax seeni tegtal jéem ko jàngatam ci ay côté yu wuute danañ gis ne masala fiqhiya sa yuñ ko waxe ba wax ara'ul fuqaha wax seeni adilla munaaxasa ko des na manat def lim tudde tarjih tarjih moy nga leunkel nag ne wax ji kat moy li gën leung moy li gën a moy li gën a nak nag ne mom do nga bax tekku lol de tekku ne mom do nga bax lol moo tax itam ngir mu waye nek ci mirum na ca ana ànd caag ikhlas di selal te baña a la ñeneen ña nek sañ nga nak sañ nga nak li nga nek nga ko layal sañ nga it di ca wo nit ñi sañ nga it di andi say argument di wone na moy li gëna wër ku nek sañ nga lolu ñaari ñepp ku ne sañ nga lolu pour jema convaincre ñeneen ñi waye nak bu mu tax nga sikkal la ñeneen nek na wërut ndax ay borom xam-xam lañu ay kangam lañu waye la yonte bi sama waxon rek isa ijtahada al fa asaba falahu ajran wa in axtaa falahu ajr ñena kep wax ijtihad mooy fekkee benn masala ngay góorgóor di xool lan mooy jub ga yonte bi ne loolu ku ko def bu fekkee dëppoo nga ak jub ga yàlla dogal na nga tombe ak la la wér ne da nga am ñaari yool mooy yoolu effort yi ngay def ak yoolu daj nga daj dëgg gi waaye wayn axta bu fekkee da ngaa juum nag ba dëppoowoo ak la la wér ba tey da nga am ab yool benn yool yool bi mooy yoolu effort yi nga def ko ñaari waxe yépp sanes na tarjiyax na bi de moy bi gëna wër waye ba nek ci ñu nek ci benen bay itam nak teew dinañ am yool ndax def nañ effort tay itam am nañ ay argument donte argument yi mas naa am luñ ca wax waye am nañ nak luñ sukkandiko teguñu ko dal ci banex bakkan la bëgg wax borom xam yi nga xam ñoo wax ara yi ma fa wax yépp moy moy gis-gis yi yépp ku ci nek nga wax jëm nga andi ay argument jele ko ci alquran jele ko ci sunna jele ko ci al ijma jele ko ci al qiyas jele ko sax ci al manqul muy logique kon ku nekk yaa ngay def la nga man ngir argumenté wu ak maanaam dëgëral la ngay wax léegi nag euh, man mii di wax ak yéen bu dee sama ra'y dëgg-dëgg boo xam man moma ma convaincre ma di ca jàpp damaa gis ne waxub ñu njëkk ñi te mooy bañ a considéré ixtilaaf li gën a dëgër loolu jàngkat bo xana ne gëstukat nga sañ nga ko sañ nga ko te loolu tam du samay wax sax danaka ay waxe borom xam-xam yenen la yu bari ci ñu mujj yi ñoo xam ne biñ masala bi e, ba mandaxe tekkale ku nekk ci ñaari kurel yi ba ñetti kurel yi fofu lay mujj ag ndax bokk na ci li wane ne mooy li gëna wër moy li gëna dëgër moy li waxon adilai ci addila yi passé moy xitaab say ko sariya digelé ñepp lay dugal ñepp lay dugal amul ki ak ka denga ta te xadis yi ñëw di diglé wor ak waré dafa wax ne suumu li ru'yatihi wor len buñ ko gisé buñ ko gisé kon bu ko Sénégal gisé informé ko benen rew dañu sañ dañu wara wor ndax ay julit ñofa nek ñaaral bay tam moy borom ñaare lu wax bi nga xam dañu bokk seen wax moy xulafaaye gis ñu fuñ binde ba ñi ñu leen kat ah kay ndax bo binda yombut bo yene ndaw bala ag mu yag legi wax deug yalla communication yom na ci suñu jamono man japp na na jamono ji ñu nek nga xam ne tey vocal bi may def suma tegge sama loxo wala suma bëssé sama loxo bam dem rek man naa am sax maanaam ña nekk ca amérique mbaa ña nekk ca fa gën a sori australie wala ña nekk canada masala mën nañ ko njëkk dégg ñi ma bokkal néeg mën nañ ko njëkk déglu ñi ma bokkal néeg mbaa ñi ma bokkal kër nga ne information noonu la gaaw a tasaaroo jàpp naa ne moom lay waratuta am loolu moom wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne udinullaha bihi loolu loolu moom moom laa gëm sama diggante sama borom te moom laa jàpp duma nag sikkel lu keneen nekk ndax itam nag am na loo xam ne du fi jàngkat yi fi gëstukat keneen ku nekk ci leneen it am nga ci droit waaye bu kenn sikkal kenn ndax diine ci boppam moo bari ay wuute diine ji moo bari ay wuute lool te wuute na sax ci ay masala yeneen yoo xam ne moo gën a xóot yii waaw boo rek ci julli na faatixa bokk wala bokku ci am na bu wuute ndax dañ koy jàng bu ñuy julli wala duñ ko jàng am na bu wuute yi yàq julli loolu xam nañ ciy wuute fatiha ndax farata ci julli gu nekk dañ ko war a jàng forcément loolu am na wuute yëpp kon ay masalal yoo xam ne wuute da caa am teewu nag ku nekk sañ ngaa jàpp la nga xam ne moom nga moom nga gëm waaye daal li ma waxoon sànq laay confirmé waat rek ne buñ ci génne won, par parloo génne ci ak réer jàngat ko ilmiyan ci wàllu xam-xam rek soo mën naa wàññi lu bari ndax ñun am na leneen luñ ci dugal ñun loo xam ne moom daanaka suñu fi bopp la waaw suñu fi bopp la ngir rek par rapport ci wàllum ay ngir mbaa yu mel noonu mbaa ci wàllu këru diine bii la kee bokk kee këru diine bee la bokk wala sax xëccoo poste boobu noonu ngir ay intérêt xam nga poste koy xëccoo ak nim sensibilé ngir ay intérêt aduna mom pour mu pour mu doxal yoon li lislaam wax dana ak bëgg am ngeureumal ñëpp bëgg a nga bànneexu ñëpp bëgg ñëpp d'accord loolu day jafé li am solo mom moy li nga nek nek ci te am foko tek am foko tek waaw kon dal andi nañ wax yi ci am andi ñëpp seeni argument légui nak ku nek am nga droit choisir li ngay tan ala kulli hal wax naa ne rayu bu njëkk bi nga xam mooy ne kenn du considéré ixtilaaful mataali mooy kenn du ko jàpp rayu boobu wax naa la ñi ko wax muy ay borom xam-xam yu baree baree bari e, nga xam ne nee naa la mooy li gën a siiw ci ngirum imam Malik loolu mooy li gën a siiw ci ngirum imam Malik te itam am nañ ay riwaayat yoo xam ne Eh, jëlee nañ ko ci jëlee ko ci moom muy riwaayaat yu wér a wér a wér dégg nga eh, wax naa la it ne la loolu mooy ngirum xanaabila yi muy ahmad ibnu hanbal loolu mooy li gën a ci seenum ngir loolu it kenn ci lenn ci ngirum saafin ya wax nañ ko naka noonu itam eh, lenn itam ci ngirum abu xanifa wax nañu loolu kon loolu euh, moom mays na ko mays na ko maanaam loolu mays nañ ko jàpp ci euh, conclusion conclusion bi ñuy def mooy wax bu njëkk bi mooy li gën siiw ci ngirum Malik te Ibn Abdul Bar wax ko ci istizkar jële ko ci Ibnu Qasim égyptiens yi moom lañ soloo ci moom ba tey imam Laysi moom la wax ab wax la ci ngirum yi ab wax la ci kufiyun yi ak ngirum ahmad ibn hanbal dégg nga waxum ñaareel bi tam moom it ibnul munzir moom la wax ak akrama ak qasim ibnu muhammad ak salih ibnu abdallah ak isaaq ibnu rawi ñoom ñëpp tamit ay borom xam-xam yu mag a mag a mag lañ ak imaamu tirmisi dégg nga ba tey itam ibnu abdul bar wax boobu la askanale abdullah ibnu abbas mi nga xam mooy borom mooy borom xadis boobu kon Euh, loolu it moom la imam Zaylan yi ci ngirum Saafi ngirum Xanafiya tànn tey itam mooy li gën a ci ngirum al imam Shaafi'i yi ba tey mooy waxe Ibnu Majsun bokk ci ngirum Malik ak al Mughira waaw kon daanaka may naa yamala jotaay bi foofu ginnaaw bi ñu indee ñaari wax yi andi seeni argument euh, waxitam itam suñu gis-gis ginnaaw bi su ko defee nag ku nekk am nga droit tànn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, macha allah ñu ngi nuyu bu baax sëriñ oustaz Mouhamed Diagne macha allah di am mbégte lool ci dalal biñ ñu la dalal tey nga indi waxtaan wu am solo bu bu doy kéemaan bu bari xam-xam lool bari njëriñ macha allah ñu jëriñu ci bu baax a baax topp nañu waxtaan wi ba audio bu mujj bi rek rek rek rek moo ci des muy 7 minutes 56 bi. Euh, liñ ci gën a marqué rek mooy euh, da nga mel ni ku tey ubbi suñu xel nga xamante ni da ñu indil ñaari euh, wute yi am ci weer week koor geek yu demee noonu ba noppi nga jël sa position may may nit ki tamit te respecté nit ki position bi nga xamante ne mën na ko cee jël mu nekk loo xamante ne pédagogie d'enseignement bu bu bu bu bu leer bu doy waar lañ fi lañ fi nemmeeku macha allah juy wane ni rek ni gëstukat nga boroom xam-xam nga kuy jooxe xam-xam nga te fu fu leer nga tibbee xam-xam bi macha allah lenn lu ci nekk rek yaa ngi indi dalil fañ koy teg mu wér lool ba kenn mënu cee euh, ñu mën cee teg baaraam. kon ñu ngi la ci sante bu baax ci ci turu daayira génération sopé seigne sam yépp nga xamante ci nga bok mohammed diop sam moy wax ak yow yalla na suñu borom defal la tawfiq zahiran wa batinan yalla gëna yok xam-xam bi gën ko barkel ba fo waxé rek ku ko dégg rek mu doon njariñ ci mom te doon yiw nga bok ak ñun yiw wi ci yalla ak allah solo lol nañ lolit eh, xamna cheikh abdallah bu ñëwé rek eh, xeyna mu mëna def Euh, genre résumé wala sëñ Mamadou Gueye Sam incha allah ñu ngi amaan mbégte lool la ci xam-xam bi di ko rafetlu bu baax a baax a baax di la ñaanal gudd fan ak wér ak ak li ak barkeel ak xam-xam bu bu gën a yaatu gën a euh, euh, barkeel ci barke yonente bi alayhi salaatu wassalaam jërëjëf ah waaw macha allah macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mamet Diagne amati na solo lol de wax dëgg yàlla amati na solo lol lol lol, te yaatu nag wax dëgg yàlla waxtaan wi kay moom tabarkàlla waaw waxtu wi xat na waaye nag yaakaar na di wax sansu waxtaan wi yëpp indi nga ko maanaam solo yi tomb bi nga xam ne nga la ca am solo lépp la ca la ca am solo lépp dal, mom ñëw na ci waxtaan wi macha allah wax dëgg yàlla tege ci ay dalil yu wér a wér a nga indi ko ci ngir yi ngir mu nekk ak nam ko gisee nga xam ne ci biir ngir yi sax daanaka am na yenn tomb yoo xam ne dëppoowuñ ci dina am ay borom xam-xam yoo xam ne ñoo bokk ci menn ngir mi nekk ci benn ngir imam malik te te te, te am werante woo xam ne day am wala am ay ñàkk dëppoo goo xam ne day dox ci seen biir ci lu jëm ci wàllu weer wi maanaam ay am ay ixtilaaf yoo xam ne da ciy am waaw macha allah li nga li nga indi matalena matalena yatuna te yakarna ni nga waxe rek rek sha allah yakarna kon kenn ku nek ci ñun rek eh, ni Serigne Sambay anhu dan faral di waxe di wax na ñaari nit sax man nañu bok ben kër ki yoon worlo ko ki yoon ñak ko worlo Serigne Samba ngi doon wax di joxe exemple ne ki nga xamne gis na ko moom ci beutem mom xamna ni li mu gis wer la mom yoon worlo nako ki nga xamne na gisuko te gisul ñent nit ñuko gis kooku yor wor ko mu ne kon nya benn keur sax nit mën na caa bok wa te yakana ni nga waxee ak ni nga indi ak borom xam-xam yi nga xam na cité nga len kenn ku ci ne joxe ay argument yu yu leer pour défendre l'une ou l'autre thèse day firndel ne kenn ku nek rek la ngay wax ak la nga japp bu dee da nga koo dang da nga da bu dëgër bu am solo yaakaar na tabarkàlla di nga di nga xaste wérante beeg yoy yépp mën na caa ñàkk kenn ku ne mën nga japp la nga japp di dëgg moy ñaari dëgg yoy sëñ Sam di wax ne mën na am wa ñaari dëgg mën na am eh, yaakaar naa man si joxe woon si rañanum yenent bi alayhi salaatu wasalaam yaakaar biñ ko laajee saydatuna Aïcha dana képp ku ne gis nga ku ne suñu borom eh, yenent bi gis na suñu borom fen nga fen wu rëy ci l'islam yaakaar bañ ko laajee su mu jumut ibnu abbas wala abdullah ibnu omar dane yenent bi gis na ko mu ne ñoom ñaan ñëpp kenn ku ci ne wax nga dëgg waaw sayyidatuna Aïcha bi mu naan yenente bi gisul suñu borom mooy gisu ko ak bëtam yii bët yii ndax alxuraan nee na suñu borom du ko bët bëti bëti bëti doomu aadama du ko gis waaw kee bañ ko laajee mu ne gis na ko nee na bëti xolam la ko gisee te bëti xol moo gën a leer bët yi nga xam ne moo sax suñ jëmm ji kon ñaari dëgg mën naa am tey sa li ma indi ak li ma jàngat ci waxtaan wi foofu rek la ma dama delloowaat waaw kon ñoom ñëpp kenn ku ci ne la nga jàpp bu dee da nga kaa ci dalil ju ju leer wala nga tek ko ci ngir gu leer wala nga am nga sukkandiku way dal am nga lay manam man nga ko layal lay bu leer waaw yaakaar naa kenn ku ne bu fekkee sukkandiku nga foofu rek di nga am raison manam di nga am dëgg ci li ngay def te comme ni ko sëñ Sam doon waxee suñ borom moo namul julli ci di woorandoo di werandoo wala di tabaskeendoo di taba di di di di umandoo di di woreendoo waaw nee na suñ borom ko kan namul bu ko namoon dina ko def waaw kon nag macha allah waxtaan wi am na solo tegu na ci xam-xam waaw solo gi foo ko natt weesu na ko moom macha allah ñu lay santaat bu baax di la gërëm xam naa maa ngi koy wax léegi rek naan sëñ Mamet Diagne moom am ko moo jafe am ko moo jafe waaye bu dikkee xol yi sedd moom waaw bu dikkee rek xol yi sedd moom waaw am ko nag yombul moom <laughs> waaw am ko moom yombul waaye bu dikkee dafa la waxtaan moom wallaay nga xam ni macha allah waaw moom sa xol dina sedd maa ngi koy wax léegi ak sëñ Mamet Diop Sam te waxtaan wi firndeel na ko wane na gëstu bu bu yaatu la gëstu bu bu bu bu bu mucc ayib macha allah xam-xam bu leer wax dëgg yàlla tabarkalla waaw kon na dañ lay ñaan suñu borom may la gudd fan ak wér gu yaram yàlla sàmm la aar la waaw yàlla yokku xam-xam bi bu baax a baax a baax yàlla taxawu la waaw yow daal macha allah olof yi naan sa dund gi am na njariñ waaye sa dund gi am na njariñ waaw macha allah waaw yàlla na yàlla dëgëral la bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla dafa lépp loo bëgg te sàmm la aar la yokk xam-xam bi bu baax a baax a baax a baax projet yi motali yéen yëpp si barke Cheikhul Khadim barke Baye Sam macha allah lii moom ku ko déglu tey rek wax dëgg yàlla di nga am njariñ lu baree bare bare loo ci mën a jëlee tey ni képp ku ko déglu tey yaakaar naa lépp lu jëm ci werante moom ci lu jëm ci wàllu weer moom da nga ko dépassé moom bis ni ki tey waaw da nga ko dépassé moom waaw da nga waaw macha allah ndax kenn ku ne rek la muy wax mën na koo layal te it mën na koo sukkandiku ci ay boromi xam-xam yu ñu reconnaître seen xam-xam waaw mën na koo sukkandiku foofu kon nag macha allah lépp matee na waaw xol yi seddati nañ guy daal wax dëgg yàlla allah waroo di fi gëj nag sëñ Mamet waaw da ngaa warut di fi gëj nag waaw sëñ maam Aline tey dina kontaan lool sëñ maam Aline Mbay da lay laaj lool lu bari sax da lay laaj lu bari tey moom xam naa waaw ah, allah jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla fay la yiw ah, xam naa nag benn laaj rek laa bëgg a indi laaj bu gàtt lay doon ndax damay gis ci jullit ñi am ñu koy jëfandikoo damay gis ci jullit ñi am ñu koy jëfandikoo waa ñi nga xam ne ay appareil la ñuy utiliser di ci xool weer ñi nga xam ne ay appareil la ñuy utiliser di ci xool weer di ci woor di ci wori di ci tabaski di ci ñàkk tabaski ci appareil yooyu ndax loolu moom diina nangu na ko wala déet ndax liñ koy layee kat dañ naan diine it dafa war a évoluer maanaam muy taxaw si jamono yenente boobu ba léegi rek daan ne si loolu la ñuy sukkandiku bu technologie avancée tamit diine daa war a adapté wu ak technologie ba tax na am na ñoo xam ne tey dañuy utiliser technologie boobu wala astronomie wala astrologie waa astronomie lay doon di ci séntu weer di ci woor nag di ci wari waa léeg-léeg sax ñu xam ne weer wi bés sàngam lay feeñ ak nangam te am na ci réew yoo xam ne réew tubaab yi Eh, fi nga xamne ne daanaka nee asaman ñoom eh, asamaan duy leer lu bari may gis ñuy utiliser eh, technologie bobu technologie bobu di ci wor di ci wori di ci fixé dal manam seeni weer wa lolu yit mom lan la ci l'islam wax lolu rek bo nekkon sama laaj di la santat bu baax di la ma sha allah jërëjëf salaamaaleykum sëñ Mohamed Diagne alaykum mbokki groupe bi seigne Abdoulaye Cissé seigne mohammed Diop yéen ñi ma fekk ci bunt bi ma di jaajëfal bu baax di kontaan bu baax a baax sama mbokk jaañeen bi te moom xëdd bu duun laa lay jox te moom xëdd bu duun a duun incha allah waxtaan bi gànjaroon na lool am na solo jàngis na ci lu bees jàng na ci lu bare bare bare bare bare bare bare wax dëgg yàlla te lépp nag man li ma ci jàng te tënk ko ci rek mooy le respect des choix des autres nga xam si tey nit ki lim opté choisir ko te teg ko ci dalil parce que diine dalil la gis naa ba ko doon wax diine ci dalil la kenn ku ne tey Eh, am na loo xam ne nga ko ci dalil bu wér dalil bo xam ci ni ci comme que xam kangam bu xam la ci diina ji muy ci borom ñeenti ngiri wala ñi top ci ñom xam ci reer mu ñu ci am dal ñi ko ndan bu wax sëñ mohammed Diagne jërëjëf ñu ñi agal waxtaan bi dañ ci yam nak ci 22h 41 quarante minutes audio bobu lañ toll 356 cinquante six minutes waaye ñu ngi teewlu ci top bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah waa daayira génération soppe Serigne Sam Mbaye seen bokku mbokku taalibe Idrissa Sow mo ngi di nuyu bu baax baax di leen ziar euh di rafetlu waxtaan bi ñu Cheikh mohammed Diagne wa Oustaz mohammed Diagne defal ñu tay ma sha allah ma sha allah ñoo koy rafetlu bu baax baax baax wa xam-xam bi leer na wallahi amna wër way amna fu mu teggu donc mën naa ne li ñu sëñ Sam doon euh, junj rek si biñ ko question laajee question ci wàllu weer bi rek loolu la ñu détaillé waaw Cheikh Oustaz Mohamed Diagne loolu la ñu détaillé waaw comme ni ko Cheikh Abdoulaye Cissé waxee rek ak ñeneen ñi mooy <coughs> yaakaar naa ne euh, dafa yombal mbir yëpp waaw parce que képp koo xamante ne rek euh, jullit nga rek waaw weeru koor bi concerné la rek ya karena ne bo dégloo audio bi ni rek audio yi Cheikh mohammed Diagne detaay ni rek di nga retrouver wu waaw di nga retrouver wu te di diingat ken do ñu ngañi ken waaw parce que boo xoolee ixtilaaf bi mom dafa yag waaw te niñ doon wax ni comme que nee nañ ixtilaaf moom yërmande la moom yaakaar naa eh, jullit yëpp eh, si yërmande boobu la ñuy dugg donc yaakaar naa ni yenn yenn kii yep amu ci amu ci njëriñ waaw amul amul amul ben ben solo macha allah ñoo ngi rafet lu baax baax baax xam-xam bi alaykum eh, waaw bon allah Abdoulaye Cissé sa question bo aussi amna amna solo amna solo parce que yaakaar naa ne jamono bu ñuy débuter ko ñep gis nañ ko waaw ñep gis nañ ne bon ces spécialistes yi ñoo doon xam ne ron ben appareil di ci xol bi waaw te boo xoolee ci waxtaanu sëñ Sàmbu bi ci question boobu mu ngi doon andi fi ñu doon waxee ne jullit yi dañoo war a wooree ci ko ci ci calendrier ba mu ne calendrier euh, charia da kaa daal donc donc euh, ban place la appareil yi am aussi ci ci charia est-ce que charia moom euh, am na dara lu ci wax ci appareil yi nga xam ne ñoom dañ leen dañ def pour ñu seen weer est-ce que loolu aussi charia wax na si ou bien yow charia boobu noonu dafa war a dem adapté wu ci euh, évolution wu science ci euh, wàllum wàllum boobu quoi donc macha allah question bi question bi amna solo amna solo trop yakarna ni oustaz euh, inshallah dina ci andi ben ben réponse si si ñaari côté yooyu euh xamna li ma ci bëgg yok itam bi may teewlu waxtaanu sëñ mohammed Diagne bi <laughs> da may fatale benen njaañeen benen njaañeen muy Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne dafa melni waxon na lu melni surtout seigne mamadou Diagne bi wax ne yenn rew yi nga xamni danaka lika tuba be len tass rek tuba bi mo len déloca mo mo mo mo disloquer Afrique wa tas fu melni senegal ak Gambie tay mu nan ak Mali sax nga xamne Mali senegal amna amone na jamono amone na fédération la fédération du Mali senegal ak Gambie ñëpp xamna ne ben rew la colonisation moko tass han ah, ñu xaj ko def ñi ñi anglais yi occupé won ko ñi ci des français yi occupé won ko ñu xaj ko Mali ak Sénégal moom nekkoon na ben la fédération du Mali yakana ñepp ngay a yagul jamono yi sangor ak Mamadou jara ak Modibo Diarra waaw te yakana ñepp ben wor lañ daan wor Cheikh Omar Diagne dafa fee waxoon jamono yi li sa ginnaw amone ay critique yu bari nak xamna naa bëggoon naa ci ay leeral ci même ci daara ji sax ndax mom da do da waxon rek ni jamono yi fi tuba bi di ne Sénégal fépp ñaari wor musu fe am netti wor musu fe am waaw ben wor mo fi daan am ben wor aawa yep muy Afrique occidentale française Ah, neena boobu benn autorité moo fi nekkoon di régulé loolu moo nekkoon tubaab bi moo fi nekkoon di régulé koor bu weer bi jotee mu ne weeru koor jot na génn na na ñëpp woor bu weeru koor jotee mu ne kori jot na na ñëpp woori yaaka naa réewu tubaab yi bëri noonu lay doxee yaaka naa mi ngi doon wax ne si jamono yooyu loolu moo amoon xam naa nag indi woon na fi coow lu baree baree bari waaye lii ma dégg sëñ mohamed diane di ko wax daan ne am na yoo xam ne nii daanaka booy xool xel nanguwu ko maanaam ay réew yu jege wantoo réew mi woor réew mi ñàkk woor wala réew mi ñu gis fa weer réew mi gisuñ fa weer ku nekk toog xam naa nag lu jafe lay doon Sénégal lu jafe lay doon Sénégal woorandoo moom jàpp naa ni mënta am tey it jàpp naa ni it suñ borom moo ko bëggee noonu waaw su bëggoon julli ñëpp di ànd di woor jullit ñëpp dinañ ànd di woor waaye ixtilaaf yii nga xam ne da cee am lu suñ borom nammal boppam la waaw te lii sëñ Mame Diagne indi da koy da koy gën a firndeel dafa gën a firndeel ni kenn ku ci ne tey man ngaa tegu ci yoon wu dëgër ci attey fiq yu leer yoo xam ne lii dalay lay worloo ñàkk a worloo kee waaw kon lépp leer na waaye daal bëggoon naa xam ndax bi fi tubaab bi nekkee noonu mu ko waxee woon noonu la demee wala déet ndax benn woor moo daan am wala nit ñi daan nañ am ak wuute ci jamono yooyu parce que yaakaar naa système de régulation rek moo fi manqué tey commission yi ñu tegoon muy commission nationale bi bu waxee jëm fii beneen commission créé ñu créé ko mu wax jëm fële ya naa kon ya naa pouvoir public bi tay muy état am num nu taxawé doon taxawee dina mëna imposer sax xeyna benn am manam ñu tënku ci benn commission wa am na état yo xam non lañuy def réew yu bari non lañuy def benn wor do nga fa am amul ñaar amul ñett waye fu mel Sénégal mom cas particulier la li seigne Mamed Diagne don wax nan par parlo bi fi bari yaakaar par parlo bi nak lu fi am rek moko fi indi parlo bi ya lu bare bari mi ngi am ci ci parparloo dong la jógee. waaw ñu ngi tuubaat bu baax di jéggalu waxtaan bi moom am na solo tey ni ko sëñ Mohamed Dia sëñ Mohamed Diop Sam waxee rek waaw dafa ñëw à waaw macha allah ñu ngi tuub baax di jéggalu di nuyu sëriñ Idi Rissa Sow bu Sinja sëñ Dame Sey sëñ Mohamed Diop Sam ak ñi nga xam ne dugg nañ suñ ginnaaw yëpp sëñ Jabel Ka moom it ñu ngi koy nuyu di sëñ Ablaat eh, di xaar seen contribution tamit si waxtaan bi incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inwa senera chon sope sering sampai. Sen bokk sen faret sen am dongo. Allah ñu mo leen di nuyu leen ziar di nuyu Serigne Mohammed Diagne ak Serigne Abdoulaye Sissé waxtaan wu am solo wi am solo lool wax deug Yalla te nga tegu na ci xam xam tegu na ci yar tegu na ci manam ci lepp dal ci lepp lu borom xam xam di sukkandiku dal tegu na ci kon nak ñing lay ciar bu baax jàng la ñaanal yalla defal la fannu gudd ak wér ko xam-xam bi ak force bu yeeg am nan bi ci barke borom tuba di nuyu sëriñ abdoulaye ci ci mëno fekkar bu ndu bi sëriñ sëriñ gay sam sëriñ mamadou job sam sëriñ di idrissa saw ak sëriñ dam sey ñu leen di nuyu di leen ci di loogun seeni ojo waaye bëgg nañ ko teewlu inshallah rabbi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziyaara di leen baala tey leen ko baal di jël nuyoo beeg ziyaar bi di ko teg ci loxo sëñ Abdallah mu jàllale ñu ko ci kilifa ak mbooleem yëpp rek di ñaanal kilifa gi nga xamante ne moom moo doon def waxtaan bi sëñ Mohamed Diagne suñu borom fay ko yiw ci barke weeru koor bi barke xasida yi xam naa nag amoon laaj rek waaw mooy xam-xamu asamaan bi nga xamante ne moom nga wax ne mën nañ kaa dimbalikoo léegi moo doon laaj dimbalikoo boobu noonu suñ doon ko dimbalikoo ci ban anam lañ koy dimbalikoo parce que buñ ko dim buñ nee dimbalikoo kon day am ay limite kon fan mooy nekk ay limite am fan lay yam dimbalikoo bi waaw loolu benn question la benn question bi mooy tey jii bu fekkee ne daa am ñu ko gis Mali wala dëkk yi nga xamante ne jege nañu wax ñu ko boobaa ndax du aajowoo ñu xool ki ko gis wala ñu ko gis ndax ñooñu doom ay sart yoo xamante ne dana dana daje ci ñoom ngir ñu mën ñoo ngir ñu mën a sukkandikoo ci ñoom ngir woor baa wori ndax am na benn kilifa gu waxoon ni koo doyloowul ci sa alal noo koy doyloowee ci sa diine waaw bu ko defee ndax ñi ñi ko gis moom du ajo du aajowoo ñun ñu xool ñooñu ñan lañ ba xam war nañ leen a doy loo wala di daal ndax amul sart yu war dayee ci ñoom ngir ñu mun ñoo woorloo wala ñu mun ñoo wariloo xam naa ñaari question yi daal laa ci laa ci amoon di dellu di santaan mbooloon bu baax di ñaan jëmb liggéey bi ñu day cee ngërëm sëñ Tuubaa day cee mu sëñ Sam barke xasida yi ñoo ngi sant ñëpp akasa sëriñ Abdoulaye Cissé déglu nañ audio yëpp ba ci audio yi audio suñ daam bi waaye man de li mu indiwaata bu leer ay kàddu mooy xam nga suñ saam nee na ñaari nit mën nañoo bokk kër kii yoon warloo ko kii yoon warloo ko waaye tamit indiwaatal nañ si loo xam ne tey jii maanaam maanaam buñ ko toppoon rek day wér daal ndax nee na koo wóolu wuta si sa alal nga koy wóoloo si diine kon maanaam tamit wax boobu tamit lu jara euh, xool la ndax tey fi mu toll nii maanaam bu dee dëkk dëkk mën nañoo man man mën nañoo sukkandi dëkk boobu tey dëkk boobu tey jii bu newoon Sénégal si Gàmbi la kii ñu jël alal jépp est-ce que président bi am na am na kóoluteeg jël alalu Sénégal jépp dénk ko Mali wala euh, président Mali am na kóoluteeg dénk alalam jépp Sénégal kon maanaam suñ sàmbay moom lu mu wax rek de maanaam dana indil ab leeral boo xam ne maanaam dang ci mëna a ba am fo mëna tek yow fo mëna tek sa sab mëna dox waaw ndax loolu mu ne ko wut sa alal noo koy wóolu sa diine diine xam nga diine da doon lo xamne ne lo xamne rek da ngay dem rek for rek daa di dem doonul alal jo xamne da ngay dem rek tibbu euh, daa di daa di utiliser waaw ñun daal fofu lañ indi sunu sunu sunu contribution ba xam euh, señ am wala yow wala señ señ mohammed Diagne ba xam waxu señ Sambay man de mom la gëna wolu ci wax ji indi yépp leer na nak mom leer na waaye nima ko sëñ sambay leerale ba mu man ko ba mu man sé sukkandiku dal gisuma dal benen borom xam-xam bo xamné man nama ko leeral ba mu mëna sukkandiku ci lolu ñu lay xiar bu baax di xiar mohamed sëriñ idrissa saw sëriñ mohamed diop sam sëriñ eh, sëñ bi gay sëñ sëñ mamadou gay ak sëñ daam sey ak jawrin yépp rek bàyyi kenn ñu ngi xiar ñëpp di di jaajeufal jaajëfal waaw sëñ Abdallah jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci commentaire bii léegi dëggu ma sax sa yeneen audio yi bii rek laa dégloogun waaye mu am solo lool daanaka résumé nga wax ji yëpp résumé nga wax ji yëpp waaw nit ñi daal il faut rek ñu nangu ne wuute dafa am ci lislaam te wuute boobu nag comme ni ko waxee li ci am solo mooy kuy wuuteeg nit la nga wax nga indi ko ay argument am foo ko teg ah li daal mooy wute bu tegu ci bànneex mbaa ci parparloo mbaa ci par parparloo waaye wuute boo xam nit ki daa ne argument am fu ko teg moom même bu dee lam nekk dajaa wéet itam waaye am na fu mu ko teg loola lislaam da koy nangu loolu ijtihaad la boox na ne bu ñu nangu la buñ xoolee lislaam bari na yu mel noonu leetul xadri bii rek leetul xadri bii rek nga xam ne Euh, boroom xam-xam yi pour ñàkk xam kañ la tax nañu wax ci fanweeri wax ak ñett waaw benn borom xam-xam bu tudd alxabitul iraq yi andi na fanweeri wax ak ñett yoo xam ne borom xam wax nañu ko ci kañ la waaw alxaafis ibnu kasir di borom bu siiw su moom ci ci tafsir alquran moom it andi na ci fukki wax ak benn ci leetul xadir kañ la kon sañoo nit di jàpp leetul xadir bi sàngam nga di ko conteste ci ne ko du boobu bii la ndax mën naa am daa ko ci benn wax ci wax yi ma wax ci fanweeri wax yeeg ñett li am mooy bis ba nga jàpp yow wutal koy argument waa su ko defee nag jàpp ca man ngaa convaincre ku la neex man ngaa woo ku la neex ci li nga nekk ngir jàpp ne mooy lu wér waaye nag bul sikkal waaw ci usul dañuy wax ne la tirada ala muxtalafin fiihi maanaam loo xam dañ caa wuute nga xam ne ay borom xam ñoo ci wuute loolu kenn du sikkal xam nag moom sañ nga koo sikkal boo gisee nag koo xam ne moom day fanatique man du taxasub nga xam ne parpaloo rek moo ko ñor kooku moom sañ nga sañ nga sañ nga daal ci kaw moom xam nga nag li nga xam kenn waxu ko amul ay lay amul ay argument waaw ci sabakat nga ko teg ci parparloo waaye loo xam ne mom ay borom xam ñoo ko wax masala yu bare ba dañ cee wuute yu bare dañ cee wuute xoolal rek eh, borom ñeenti ngir yi tàmbaleel foofu Imam Malik moo jàngal ay imaamu Shafii imaamu Shafii kon nekk ab dongam waaye daa xëy xëy maanaam wuuteeg mom ci ay masala yu bari ba far loola nekk am ngir loolu fa nekk am ngir waaye taxul mukk nag sikkal la imam Malik nekkoon ak lam ko jàngaloon taxul mukk itam imam Malik sikkal imam Shaafi'i ngir lim wutek wuteeg moom dégg imam Shaafi'i moomu doon jàngal dong bu tudd Ahmad ibnu Hanbal moom itam mu nekk gëstukat dema dem ba wuuteeg moom ci ay masala yu bari ba far moom it loolu nekk am ngir muy ngirum xanaa bi lay te ah, moo ko jàngal waaye taxut taxul mukk Shaafi'i gàkkal mbaa mu sëkkal li Ahmad Hanbal di nekk mbaa Ahmad Hanbal di gàkkal imaam Shaafi'i sëriñam yaakaar naa ñëpp dégg nañ xisat boobu Baye Sam yàgg a nekk li rek ci diggante Ahmad ibn Hanbal imaam Shaafi'i yi bi am Shaafi'i faatoo la ci Ahmad Hanbal wax ba mu ko yónnee mbuuma nam ci def yaakaar naa loolu ñëpp dégg nañ ko ak seere yi Ahmad Hanbal wax ci imaam Shaafi'i kon wuute yàgg na ci lislaam ab jàngkat it sañ naa jàng ba ay gëstoom ak fu ko aggalé mu ne lii la ma sama gëssu wan te moo ma doy mom lay top lolou kon ku nek sañ nga ko te lolou rek tax ñuy jang wa su ko défé nak la am solo rek waxna ko moy na am foko tek rek ci l'islam ndax lislaam moom basan yàgg na ko wax abubakar siddiq moo ko daan wax nee moy inna diinana mabniyun alal ala naqli wa suñ dina ji dañ ko tabax ci ak tukhal la ala munasabatil aqli waaye du ci lu depp ak xel rek ni diina dum xel waaw li ñu bañ laal ci diine mooy ku koy teg ci xel waaye ki saa saa yoo xamee la ngay wax yaa ngi ko teg ci naq la mooy yàlla wax na ci alxuraan nanga wala yonti bi wax na nanga wala ijtihaad kat eh, wala boog kat nee na nanga wala qiyaas nee na nanga wala ijtihaad nee na nangam loolu des koy nangu oh, ba keroog ñu gis lu ko dindi ba keroog ñu gis lu ko dindi waaw te bu dee texte yi nga xam ne bu dee masala yi nga xam ne maanaam texte amu ca yooyu dañ ci nangu wute bu baax a baax a baax a baax xëy na masala boo xam texte dèjà ñew leer nañ texte bo xam ne nangu tawil moom da leer nañ koku mo la ñu nangu ku ak mom wa koku borom xam-xam yi dañuy dàq ku wuté mom waye texte bo xam nak dafa ñew leer ga dess na manam mas ko koo ni mas ko dégg nee suba moom koku wuté ga dañ ko nangu bu baaxa baaxa baax wa baax waaw ku nek am nga texte lool moo tax nga gis léeg-léeg ñu wuté ci am masala bo xamne ñom ñepp ñëpp ñoo bokk même argument yu ñu argumenté wo waye nak nañ koy dégg may wuté feeñ ci masalam bismillahir rahmanir rahim ci julli feeñ ci ku am bor manam ku dog ci weeru koor te teyo ko ndax da ngay continuer sa koor te do fay wala ndax da ngay fay ñom ñepp ñu sukkandiko ci ben hadith sama wax ne ku wor jumbalek ba mu na kon na koram ndax yalla moko leel yalla ko mandal waa gi na kon koko mom dara ko du fay du kafara ngir maag ne ah kay day fay de yoon tam li mu wax ne yalla yalla moko leel da jublu wax ne rek du kafara waye nak mom biko ko da koko dagna nga gis ne ñoo bokk xadis bi tegtaloo waaye dégg ni mooy wuute su ko defee daal loolu nañ ko nangul ñëpp nañ ko nangul ñëpp waaw mooy li am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki daayira ñu ngi leen di nuyu di bu baax <coughs> di nuyu waa groupe bi yëpp ci nuyoo groupe bi yëpp di xaasal nag moom suñu soppee bopp bopp bi <laughs> bay daan say moom moom dañ koy defal xaas moom <laughs> di rafetlu nag waxtaan wi boobu léegi ñu ngi koy toppa ak audio yëpp ay dañu doon def yëfu ndaw ko ndaar yi moo taxoon mën a ñu ko woon <laughs> ñu ngi rafetlu waxtaan bi bu baax a baax a baax di wax ne yàlla macha allah am na solo lool te tegu na ci xam-xam macha allah daal dañuy ñaanal rek waxtaankat bi ki doon def waxtaan bi suñu borom gën koo sàmm te gën koo dëgëral yaa seydi wa jot sallallahu alayhi wa sallam waaw cheikh abdallah eh, ñu ngi jaajëfal bu baax baax di sant bu baax ci kàddu yu rafet yi macha allah eh, ñaan itam yàlla yàlla nangu yépp te boole ñu ko maa ngi ziar bu baax suñu Aliou Mbaye waaw ah, ku baax ndeysaan ko am ko lëre ñu <laughs> nga ziar bu baax di ziar sëñ maam Cheikh sëñ Ibrahima ak mboolem eh, eh, waa Kër Baye Sall ci biir ñëpp macha allah eh, jéglu bu baax nag ci géej gi moom mu ngi jéglu bu baax rek moom buñ seen wax rek yàlla heure bu na nit ñi dégg xanaa kay jamono léeg-léeg mooy am nu bindoo rek waaye ñu ci ciy tuub waaye daan ci daan ci bàyyi xel incha allah daan ci bàyyi xel ndax yii moom yu am solo la waaw yu am solo la te daanaka moom mën nañu sax mooy mooy li am solo waaw yittewoo mbirum diine di ci waxtaan daal eh, surtout ci masala yi nga xam ne ni ngeen ci soxla xam waxi borom xam-xam yi moom moom dëgg yaa ci ëpp solo la bokk bu ñu xoolee ci sëñ saam moom daanaka dañu mm, sëkk ci mm, jeexal sa dund gépp ci xam-xam mu jaral la lu ne yàlla ñu ci yàlla dimbali bu baax waaw bu dee ci sa audio nag dafa am ñaari masala yoo ci tudd yoo xam ne dañoo jege te bokkuñu benn bi mooy di sukkandikoo ci wàllum gis weer ak ñàkkoo gis ci calendrier muy astronomie wala di jël appart di ci xool weer wi ñaar yooyu euh, bokkuñu bu dee bi ma njëkk wax te mu sukkandiku ci ay calendrier yoo xam ne moom doo séentu comme ni yenn réew yi def mu ne réewum Turquie ak sax lu bari ci réewi tubaab bi noonu la ñuy def dañuy te calendrier rek nga xam ñoom ñoom ñoom buñ ci baraxlu daañ xam maanaam kan la wor dañu fixé seen date wa ñom ñaar ñooñu ñoo luñu séntu weer dekk bu mel ne Niger ji nga xam jégé jege nañu euh, ñoom it calendrier la ñuy sukkandiku ci lo ma mujjoon xam lolu nak euh, li ëpp ci fuqahaay mom dañ ko daq momi benn kurel bu neew ci fuqahaay ñoo ko daganal rawati nak ci ñu mujj ni sax nak wa borom xam-xam fekk yu mujj yi ñoom ñoo ko nangu waaye borom xam yu njëkk ya dañ ko daqoon waaw bu dee ngir may re day wax na mom ñoo moom ñooñu day sukkandiku seen wax wa ko xamne ci wàllum biddiw yi lay sukkandiko di wax ne weer wi bi sangam lay ter bi sangam lay ke kooku mom ay xam desuko desuko desuko nangu bu de rew mo xamne asaman lay leen dem ba duñ gis weer dañ ne hay dañ ne ñoña dañuy sukkandiko ci rew wa gisub rew bu leen jege bi gis weer masalan senegal fi bu buñ demoon ba war sen séntu bu leen dem ba kenn gisul ci senegal dañuy xor rew muñu muñu muñu dendal wa rew muñu dendal ta fofa asamaan sa leer na fa bu ko defee déglu seen xabaar loolu borom xam-xam yi di wax waaw àgg na sax ci wax ne àgg na sax ci wax ne bu ñu séentoo weer eh, ba jàpp ne feeñut ba ñu xëy wóoruñu bu dee jamonoy koor wóoruñu eh, ñu dem ba xëy yëg ne kat ndeke weer bi feeñu na démb ñoo ko gis na boobu moom dañ koy fay loolu àgg nañ waaye nag taxuñ wax ne mom seen naa sukkandiku ci kii léegi nag am na ay borom xam yo xam ne mom hadith bi ñu wax ne bu ngeen gisee weer woor la bu ko gisut euh faqdiru la xoo na ko nattale na ngeen bo dañ ko firé ne mom na ngeen jëfëndiko xam-xamu biddiw yi waaye mom ku reul bu néew ñew ci borom xam ñoko wax xam naa ne beneen masala la boo xam ne moom it bi ñu ñëw jàngal ko ku ne ñu andi say say argument benen bi nak ta moy euh jëfëndiko appareil pour xol ci weer wi rek mom nga xam ne day mel ne euh, appareil bu reyel la maanaam mukabbir la bo xam day reyel weer ba nga mën koo séen euh, ngir na buy doo a feeñ day sew loolu moom lislaam nangu na ko dara néew ci waaw ndax weer ba ngay xool ci appareil ba séen ko boobu moom feeñ na ma nga fa weer moom ma loolu moo ko yow mi mi nga xam ne boo xoolee doo gis weer takk ay lunette sa weer weer mi yëpp xool weer ñoo yam soo gis boo ko tekkee doo ko gis moo it ki yor am montre am tëju ci biir néegam génnul benn yoon waaye mu yeewu rek xool montre am gis ne kat <clears throat> moom baye lek ak naan jot na dégg nga donte déggul noddu wala mu xamne ne kat fi mu ne nii na ndax xol na moom tam gis na heure tisba jotna na te génnul ben yoon xol jant baa ki ñooyam ta te bu nek lañ daan xamee tisba rak yoyu moy nga xol jante bi bu doxé ba tool sang ba sa ker nangam nangam waye legi man nga am montre man nga am sa ordinateur man nga am leneen internet mën ngi sukkandiku ba xam manam heure waxtu yépp lu nexé nga tëju fukki fan bu la nexé nga do waaye waxtu bu jot da nga xam kañ la te ci technologie ngay sukkandikoo loolu moom dara néew ci waaw ndax weer wi appareil bi nga jël këpp koy asamaan si maanaam seen weer wi fekk na ba weer daa feeñ rek waaw daa feeñ waaye bu feeñul doo ko gis daa feeñ dong moo tax koo gis waaw loolu moom moog atte yi nga xam ne léeg-léeg médecin dañ koy def ñoo yam médecin bi nga xam ne day ñëw mu këpp ci biiru soxna su toll diggante wax ko doom ji ne danger bii ma nga ca su ko defee léegi ñu jël ci ay matuwaay ba mu ne doom ji kat góor la ba doom ji kat jigéen la nagn koy nango euh, ndax loolu du du du du kumpa du xayb lu fa nek ba nopi la lu fa nek ba nopi la loolu dara néew ci mo ra sax fu ko xaay dañuy wax ne même loolu sax sen jeufandiko ci walu mirage te bu ñu fa doon baye soxna mu ambu ñu bëgg seen ay bëgg nga xam ba bi góor la am jigen lañ naan def bu njëkkoon ci fekk moy baye fi ci rub góor bañu baye ba mu wasin bu ñu xaar waye legi comme nit mëna am bu ñu kepp appareil ci biir bi xam doom ju ko daan jigéen loolu bu ñu ko mën nañ koo jëfandikoo daal di séddale miraas mi eh, mu jeex ndax xam-xam bobu danaka limi daanaka ak bari wut danaka bari wut ndax lu fa nekk la lay wané lu fa nekk mom lay mom lay wané wa kon loolu mom dara ñu wa ñu bëggone indi suñu contribution rek ci waxtaan gannaaw bu ñu rafetloo waxtaan mi nga xam ne kem ni ko arab di waxe rek xayrul kalaami xal da wa la waxtaan yi wo ci ëpp solo wala waxtaan wa ci gën wala wo ci ëppum jëriñ mooy waxtaan woo xam ne sonalut noppi ka koy déglu te bëri njëriñ lool loolu rek loolu moom lañ gis ci waxtaan bi kon dañuy rafetlu waxtaan wi lool tey gërëm ki ko doon def te di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te yokk ko xam-xam te def ko muy xam-xam bu am barke bi jaay seydil jët sallallahu alayhi wasallam contribution bi nga xamne mom lañ ci indi moy li ñu déglu ci waxtaanam indi na point yi nga xamne mo nekk ci wuté borom xam-xam yi wala wuté gis-gisu borom xam-xam yi ci ndax dafa am lu am solo lo xamne dafa mata baye xel ci mbolim julit muy ñaar yo xamne war lañ ko tekkali wuuteeg gis-gisu boroom xam-xam yi ak wuuteeg jullit ñi ndax ñaari ñaari xaw a te euh, wuute ndax boroom xam-xam yi la leen daan wuutale mooy ci gis-gisu aaya bi wala ci dégginu xaddis bi maanaam ci dégginu xaddis bi te su boobaa duut ne dégg-dégg xaddis ba wala kii ni muy déggee aaya bi duut loo xam ne daf koy teg rek ci xelam waaye daf koy delloowaat ci aaya bi wala mu delloowaat ko ci hadith bi su boba da ngay fekk ay bi ni mu waxe ci grammaire bi te moy ci nahwu bi fof la wute bi di am wala ci balaaxa bi wala ci mantiq bi ci fof la wute bi di am par rapport ak nag wute yi nga xamne dañ koy gis legi ci moy rek jangana naa bi man ni la ko degge te degge ba degge nam ko degge nekkut lo xamne dafa teggu ci ay bi waaye dafa tegu rek ci sama xel kooku moom bokku du loo xam ne islam daf koy accepté yooyu boo demee ci wuute ixtilaaf yi nekk ci fiqu yëpp ci nga xam ne monsieur bi dañ ko wuute da ngay gis ne ci ci bëri ci ñi mu ko waxee rek mooy ixtilaaf fi naxwi wala ixtilaaf fi balaaxati wala couche bi nga xam ne mooy waral wuute bi ci naxaw bi lay doon tem ñi nga xam ne tey boo masaha bop tay am na ñoo kan, xam ne bu ñuy bu ñuy masaha duñ masaha bopp bi yëpp ay genn wàll bop bi rek la ñuy masaha te ci ay bi rek lañ ko déggé ay bi nga xam mo fartal masaha te ay bi daf koy nangu ñi né déré bop bi yépp ngay masaha ñoom it ci ay bi te ci grammaire ay bi lañ ko déggé faxsulu faxsulu eh, wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsu bi ruusikum usi kum gogo bi googu ndi indi ndi moo indi wuute gi yëpp nga gis ne kon ñooñu seen wuute gi nekkul loo xam ne dañ koo teg rek ci seen xel waaye dañ koo delloo ci aaya bi eh, yooyu ñaar yooyu lu mot a bàyyi xel la kon eh, bu ñu déggee nag ci waxtaankat bi bu ñu delloo ci waxtaanam mooy lim indi nga xam ne borom xam-xam yi wuutee nañ ko ci gisug weer te ko woon ci seen xel waaye dañ koo teg rek ci xadis yi nga xam ne moo jàngale gisug weer walla aay yi nga xam ne moo xam weeru koor naka lañ koy woore kon wuute yooyu nag yëpp ñun liñ ci déggee mooy e, point bi nga xam ne e, mën nañu wax ne daanaka mooy point central bi wala moo ci ëpp farata moo ci ëpp ëpp ëpp ëpp doole te mooy benn jullit ñi nga xam ne daanaka loolu moo taxaw na jub diine islaam waaye loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu yónni ko mooy ñu fexe ba bennoo ci di woorandoor jullitu àdduna bi yëpp wala ñu bennoo ci di woorandoor jullitu àdduna bi yëpp boobu moom euh, ci sama njàngat man dama gis ne euh, yoon wa ñu waroon a aw pour mën a aw ci yoon pour mën a jaar ci yoon woowu man dama gis ne yoon woowu la ñuy manam eh, ndax lepp ci départ lay doon bo nit ki raté départ ba rek mi ngi melni ni kuy wër dara da ngay wër ni ci buntu kër gi nga génn buntu kër gi xam nga romb buntu kër gi di dem yaakaar naa ne la ngay wër xaw ma da ko dajam doo ko daj waaye boo dëppaatan moom du ngeen daje tax romb nga ko ci buntu kër gi eh, point boobu nag dama li tax ndax li ma ci déggee rek mooy su umuliru yati yi comme ñi wax ne jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam Eh, bu ko yonent bi waxaanoon ñëpp daan woor wala gannaaw saxaaba yeeg ñu ni mel eh, boobu islaam daraan am li ñuy wax amirul mu'min mooy buur boo xam ne moo yilif dëkk ba yépp par exemple tey mi ngi mel ne Sénégal dafay am président tey président bu amee benn loi boo xam ne bëgg na ko dugal ci constitution bi boo ko tëggee ba teg ko loi bi boo xasee ba tegu képp kuy citoyen ne ci dëkk bi rek loi bi moom génn ko li ko waral mooy moom mooy moom moo la yilif te léegi nag boo ñëwee ci diina yi eh, kuréel yi dafa bari te kuréel bu nekk ak kilifaam te kilifa yooyu te eh, eh, mbir moom bu bari ay kilifa rek kenn ko sama borom subhanahu wa waaw ñëw bëggoon a indi contribution rek ci waxtaan wi gannaaw bu ñu rafetloo waxtaan wi nga xam ne kem ni ko arab yi di waxee rek xayrul kalaami maa xalla wa dalla waxtaan yi woo ca ëpp solo wala waxtaan woo ca gën wala woo ca ëppum njëriñ mooy waxtaan woo xam ne sonalut noppi ka koy déglu te bëri njëriñ lool loolu rek loolu moom lañ gis ci waxtaan bi kon dañuy rafetlu waxtaan bi lool tey gërëm ki doon def te di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te yokk ko xam-xam ni te def ko muy xam-xam bu am barke bi jaay sayyidil wujud wa sallam contribution bi nga xam ne moom lañ ci indi li ñu déglu ci waxtaanam indi na point yi nga xam ne moo nekk ci wuuteeg borom xam-xam yi wala wuuteeg gis-gisu borom xam-xam yi ci ndax dafa am lu am solo loo xam ne dafa mat bàyyi xel ci mboolem jullit muy ñaar yoo xam ne war nañ ko teqali wuuteeg gis-gisu borom xam-xam yi ak wuuteeg jullit ñi ndax ñaari ñaari xaw a nuroo la te euh, wuutee ndax borom xam-xam yi la leen daan wuutale mooy ci gis-gisu aaya bi wala ci dégginu xadis bi maanaam ci dégginu xadis bi te su boobaa doot ne dégg-dégg xadis ba wala kii ni muy déggee aaya bi du loo xam ne daf koy teg rek ci xelam waaye daf koy delloowaat ci aay bi wala mu delloowaat ko ci xadis bi su boobaa dangay fekk aaya bi ni mu waxee ci grammaire bi te mooy ci naxwu bi foofu la wutee wi di am wala ci balaaxa bi wala ci mantiq foofu la wutee bi di am par rapport ak nag wuute yi nga xam ne dañ koy gis léegi ci mooy rek jàng naa aaya bi man nii laa ko déggee te déggee ba déggin na ma ko déggee nekkut loo xam ne dafa tegu ci aaya bi waaye dafa tegu rek ci sama xel kooku moom bokkut du loo xam ne islam daf koy accepté boo demee ci wuute ixtilaaf yi nekk ci e, fiqu yëpp ci nga xam ne monsieur bi dañ ko wuutee da gis ne ci si bëri ci ni mu ko waxee rek mooy ixtilaaf fi naxwi wala ixtilaaf fi balaaxati wala bi nga xam ne mooy waral wuute bi ci naxaw bi lay doon kem ñi nga xam ne tey boo demee masaxa bopp tey am na ñoo xam ne bu ñuy bu ñuy masaxa duñ masaxa bopp bi yëpp ay genn bopp bi rek la ñuy masaxa te ci aaya bi rek lañ ko déggee aaya bi nga xam ne moo fartaal masaxa te aaya bi daf koy nangu ñii ne déedéet bopp bi yëpp ngay masaxa ñoom it ci aaya bi te ci grammaire aaya bi lañ ko déggee فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم برؤوsikum googu bi googu mu indi moo indi wuute gi yëpp mais gis na kon ñooñu seen wuute gi nekkul loo xam ne dañ koo teg rek ci seen xel waaye dañ koo delloo ci aay eh, yooyu ñaar yooyu lu mot a bàyyi xel la kon eh, bu ñu déggee nag ci waxtaankat bi bu ñu delloo ci waxtaanam mooy lim indi nga xam ne borom xam-xam yi wutee nañ ko ci gisug weer teguñ ko woon ci seen xel waaye dañ koo teg rek ci xadis yi nga xam ne moo jàngale gisug weer wala aay yi nga xam ne moo xamale weeru koor naka lañ koy woore kon wuute yooyu nag yëpp ñun liñ ci déggee mooy eh, point bi nga xam ne Euh, mën nañu wax ne daanaka mooy point bi wala moo ci ëpp farata moo ci ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp doole te mooy bennoog jullit ñi nga xam ne daanaka loolu moo taxoon a jug diine islam loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu yónni ko mooy ñu fexe ba bennoo ci di woorandoor jullitu adduna bi yëpp wala ñu bennoo ci di woorandoor jullitu adduna bi yëpp point boobu moom euh, ci sama njàngat man dama gis ne eh, yoon wa ñu waroon a aw pour mën a aw ci yoon pour mën a jaar ci yoon woowu man dama gis ne yoon woowu la ñuy tegg maanaam eh, ndax lépp ci départ lay doon boo nit ki ratee départ ba rek mi ngi mel ni kuy wër dara li ngay wër ne ci buntu kër gi nga génn buntu kër gi xam nga romb buntu kër gi di dem yaakaar naa ne la ngay wër xaw ma da nga ko dajam doo ko daj waaye boo dëppaatoon moom du ngeen daje tax romb nga ko ci buntu kër gi eh, point boobu nag dama li tax ndax li ma ci déggee rek mooy su umuli ruyat yi comme ñi wax ne jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam eh, bu ko yonente bi waxaanoon ñëpp daan woor wala gannaaw saxaaba yi ñu ni mel eh, boobu islam daraan am li ñuy wax amirul muminin mooy buur boo xam ne mooy yilif dëkk ba yépp exemple tey mi ngi mel ne Sénégal dafay am président tey président bu amee benn loi boo xam ne bëgg na ko dugal ci constitution bi boo ko tëggee ba teg ko loi bi boo xasee ba tegu képp kuy citoyen ci dëkk bi rek loi bi moom génn ko li ko waral mooy moom mooy moom moo la yëlif te léegi nag boo ñëwee ci diina ji eh, kuréel yi dafa bëri te kuréel wu nekk kilifaam kilifa yooyu te euh, euh, mbir moom bu bari ay kilifa rek kenn ni ko sama borom subhanahu waaw euh, ñu ngi woon ci ba léegi rek ci li nga xam ne loolu lañ dégg ci waxtaankat wi li mu doon waxtaan kenn li nga xam ne noonu lañ ko waxee rek muy Euh, nañu gis daal mooy muy julli ñi muy dafa am parce que daf ci am point boo xam ne li tax ma bëgg ci taxaw mooy dafa nekk point boo xam ne mën nañu wax ne fi mu ne euh, ñi ñi ngi ci coow lu pourquoi lan moo tax Sénégal mënuñu woorandoor wala àdduna bi yëpp mënuñoo woorandoor warandoor nangam ak nangam yooyu noonu euh, foog ñu am lu ñu leeral ndax loolu tey jii nii Euh, euh, euh, kenn am ni comme sama nijaay maa ngi dégg mu ngi wax ne am na xam yaakaar naa suñ sàmm wax ne moo ko wax ne ku la ko wóoluwut sa alal xam ko wóoluwul dénk ko sa alal dëgg yàlla boo ko wóoluwul dénk ko sa diina nag yaa sa bopp loolu moo loolu nag moo moo li am ndax comme nga xam ne diina ji léegi dafa bëri ay kuréel te kuréel wu ne ak kilifaam te comme damay dama gëm ne loolu fekk mi ngi am mooy fekk amirul mu'minin moom am dellu dellu si waatul euh, warondoor moom masala boobu moom mën nañ koo teg rek te seet kenn ku nekk rek euh, la ko doy ci ixtilaaf ba mooy ñi wax ne ñi nga xam ne ñoo bokk ma taalix mooy fisio horaire ñi nga xam ne ñoo ko bokkale ñi nga xam ne ñoo bokk waxtu bi seen jant di fenk ak waxtu bi seen jant di so te mooy seen heure rawante rawantewul ñoom ñu ànd di ndor ànd di ndor te weer bo feeñee ci dëkk sàngam ba eh, dëkk bal tamit feeñ jafa dama gëm ne daal boobu masala boobu fexe tënku ci moo gën a yomb bu loolu bu loolu mënul nekkee te it ndax it loolu it jamono dana ko xaw a euh, kii ndax it la fa ko jamonoy dàqee mooy e, e, e, ndax euh, day ba léegi dañuy delluwaat rek ci ko wóoluwul dénk ko sa alal ba ndax dañ ko wóolu dénk sa sa diina kon foofu it buñ fa dugg moom daal xam na ne daal léeg-léeg masala boobu da nga ci toog ba ci yàgg sax da naan daal euh, daal dafa mel ne rek. kenn ku nekk rek la ko doy rek <laughs> ndax xataa même dëkk bi nga nekk léeg-léeg nga nekk ci gox yow nga dégg ci rajo yi ñu ne gox bi nga ne weer bi feeñ na fi ngay tunc tunc ci gox bi di laajte gox boobu te doo di gis ku ne la euh, moo ko gis wala kuñ ne la moo ko gis te pourtant yow dégg nga ci waxukaay ñu ne dox gox gox bi nga ne weer bi xam nga loolu it euh, doo xam lu muy nuru te it xanaa rek damay wax ne bu ñu delloo ci masala bi nga xam ne moom borom xam-xam bi dëppoo nañ ci mooy bu matee mbooloo eh, ñu wax jamaata mustafida te ñii ne mu ngi tàmbalee ci juróom jëm kaw nga xam ne bu matee mbooloo moom su boobaa yow boo wooree wala ñaar yi nga xam ne jàpp nga ne ñaari way mandu lañ dégg nga ko ci ñaar ñu wute te jàpp nga ne ñaar ñu way màndu lañ ñu ne su boobaa bu fekkee ñoom dañoo fenn bakar ba ñoo ko bu ñu waxee deug yi ak ñu am ca tiyaba rek xana dama wax ni dal dama wax ni dal mas masala la wo xamni ne euh baña mu bañ a nekk par lo rek da mu baña nek par par lo rek kenn ku nek rek fi ñu nga ñuko rek mu nek lu ci lu li la doy waye baña baña bañ ñuko rek ci sama sëriñ ñu wor na woo kon dama yow wor wala sama sëriñ woorul mu doon lo xamni rek dang ko tek ci sa banexu bakam waye bu fekkee donte sa sëriñ bobu nga ñuko tegoo ko ci bànneexu bakkan te mu doon sëriñ boo xam ne ah di yàlla doy na la yow ndax amaana li doy kii mën na maa bañ a doy li ma doy mën na laa baño a doy moo tax daal eh, bennoo gi moom man dama gëm ne mission bi ñoo ngi ca ba ñu fexee ba diine ji ñu eh, eh, maanaam diine ji nekkatul ixtilaaf xam nga yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne ixtilaafu ummati bi maanaam gars yi borom xam-xam ne ummati ga lam ca nam mooy xolamaawu ummati rahmatan law yërmande la ñeel xeet bi damay wax ne léeg-léeg ñun dañuy gis iftiraq bi maanaam iftiraq ak noonu ak teqalikoo goo xam ne teguwul ci sunna teguwul ci lenn lu dul rek bakkan ñu bëgg ko dugal ci ixtilaaf maanaam ci diin diina ji fi mu ne dafa toll foo xam ne dafa am point yoo xam ne diine dañ koy bëgg a dugal ci diine da nga gis sax borom xam-xam bu koy dugal ci diine fekk ñàkk a ràññee la waaye damay wax ne euh, surtout maanaam fi diine ji toll surtout rawatina ci Sénégal moom daanaka yu ci bëri duut ixtilaaf mais iftirax la wala sax nga ne alxadaawa la ak noonoo la ndax ixtilaaf mooy man de wax dëgg yàlla lii moo ma doy waaye nag li nga yow doy ba nga jàpp ko nangul naa la ko kooku mooy ixtilaaf mais ñun nag dama naan lii moom doy mu rek moom rek kay dëgg keneen ku ci jàpput ne ku ci dëgg loolu nag xadaawa la loolu loolu mooy jural mooy jur iftiraaq moo tax eh, ay kii la yoo xam ne daal point la yoo xam ne yu yu jar di waxtaane la moo tax daal man dama doon bëgg doon na bëgg lool boroom xam-xam yi Sénégal yi Sénégal ñoo fexe di def ijma maanaam seet ñi nga xam ne daal euh, euh, euh, xam-xamuñ ci ñoom mm, doo mën a wax njubam ci ñoom wala ndax it wax di yàlla kenn du nangu ñàkk kenn du nangu ne defee su boobaa ah danañ fexe mën a comme daal doon na moom daal. <laughs> waaw jërëjëf mbokk mi ci kàddu yi am solo yooyu macha allah ak laaj Euh, laaj bu njëkk bi te mooy eh, li ma wax ci biir ne xam-xamu eh, bind yi mënees na koo dimbandikoo ngay laaj ba xam ci naka lañ koy dimbandikoo ak fan lay yem waa niñ koy dimbandikoo euh, mën naa doon luy confirmer luy feddali luy feddali masalan bu dee ci ñi nga xam ne dañ ne eh, weer daal pour ñu gis ko faaw ñaar lay doon yow na nga am kenn Eh, fekk moom borom xam-xam yooyu nga xam ne seen xam-xam màcc ci wàllu biddiw moom waxoon nañ ci leen seen xam may ne weer yi dana feeñ tey mën naa feeñ tey nga am xabaaru kenn ku ñëw ne la weer mën naa feeñ loolu moom su boobaa daanaka xaw ngaa am ñaari argument ba seen jafe ba seen sukkandiku su boobaa da sukkandiku ci xabaaru kenn ki ñëw ne la weeri feeñ na te loolu am ci fuqaha ñu ko wax dinaa ci ñëw ci kanam. waaye eh, danga am lu ko gën a dëgëral tam loo xam moo gën a may yàqiin wala sax man naa wax ñaara la wax ne weeri feeñ na ñaar la wax feeñ na ñaar ñoo bu la ko lislaam waxee bu amee rek moom ci ngirum Maalik da nga war a jàpp loolu waaye bu fekkee ne ñee ñëw nañ confirmé fekk waxoon nañ ne moom weer mën na feeñ kooku gën ngaa am yaqiin day mel ne kon day mel ne ñetti ñetti ñett la ko wax loolu di xeetu dimbali ko wala mooy dañ gën a am lu la wóor ci ne ñaar wax ne nee nañ fenn te ñee doq ñu woon feeñ gi mën naa nekk waaye bu fekkente ne kenn ñu ne gis naa weer te fekk borom yee newoon nañ moom weer mënta feeñ tey suwaat da mën nga koo dimbandikoo ba gën a gëstuwaat nag balaa nga cay basé woo di woo baa ngay woo nga gën a gëstuwaat ba xam ndax kenn la wax jox information bi te am na ci borom xam-xam ñu ne bu ko kenn waxee dañ ko dañ ko war a nangu waaye nag ñee dàqoon nañ ko kon nag laaj na ma def effort gën a gëstuwaat waaw ànd ak ne am na ay borom xam-xam yu bari yoo xam ne d'accord nañ ne xam-xam biddiw yooyu moom moom da si koy nangu rek mu tulaqan waaw am na it ay détails am na ci biir ñoo xam dañ ne moom bu dee ci ñoom dañoo dàq ne weer mënut a feeñ booba lañ koy nangu subaa moom ku ne gis na weer wi duñ ko nangu waaye bu fekkee dañ ne nag weer wi mën naa feeñ loolu de ci base boobu moom bay woor mbaa ñuy wari loolu tax am nañu borom xam-xam yu ko wax borom xam-xam bu mag a mag bu ñuy wax Yuusuf Qaradawi def na ci wax na ci wax ju bare bare bare bare bare ci ab téeram moom bokk na ci ñi saxal ne eh, xam-xam biddiw yi dañ ko war a dañ ko war a sukkandiku surtout sax ci buñ dàqee ne weer mun defeeñ kon dimbali kooku loolu lañ ci jublu woon rek eh, beneen bi mooy eh, buñ déggee ne weer feeñ na Mali est-ce que laajut ñu xool ña ko ña gis ba xam ñan lañu ak ndax ñi koy gis itam amul ay charte waaw loolu ab wuute moo ci am ci diggante borom xam-xam yi ci diggante limub ña ko gis ak nañuy mel ndax bu re ci ngirum imam Shafii ak ngirum Ahmad ibn Hanbal ñom dañ ne bu ko kenn do nga gisee sax muy wéru ko mom dañ ca wara wu ba wo ndax lolu ñu ko ci hadis bo xana Abdullah ibn umar mom mo gisone wéru wax ko yonent bi alayhi wasallam yonent digle ne kon nañu nañu woor ak benen hadis bo xamne ne arab bi muy ab mo gis wéru wi bam ko waxe comme bi ne ko. Euh, ndax gëm nga yàlla mu ne ko waaw mu ne ko man la ka mu ne ko yow la yàlla yónni boo xasee xam ne ki gëm na yàlla gëm yonante bi rek mu digal Bilaal ne ko dama nodd tey yëg la ne suba dañuy woor ñaari xadis yooyu mooy tegtalub Shaafi'i ak xanaa di lee ci nekkoon kon ci séntu weeru koor bu ko kenn dong gisee sañ sañ daa sukkandiku ba woor mbaa ñu woore dégg bu dee ci ngirum imaamu Malik ak al ak imam awza'i ñom dañ ne faaw ñakoy gis day mat ñaar bu da ci wër ko da nek ñaar nek ay mukallaf nekk ñu maandu dégg nga xam ne kenn duñ ko nangu am na waxu ñettel bo xamne ne ngirum hanafi abu xanifa ñoko wax ñom ñone dañuy tàqale diggante bu asaman si léré ak bu lëndëmé bu fekkee asaman si da lèr su kenn rek waxé na gis na wéru mom duñ ko nangu waaye bu asamaan si lëndëmee nag moom bu kenn rek waxee ne gis naa weer wi moom mees na ko nangu bu lëndëmee ndax bu lëndëmee ñëpp duñ ko mën a gis waaye bu leeree nag moom bu ko kenn waxee duñ ko nangu loolu ab teqale la ci waxi borom xam-xam yi am na ñeneen ñu ñëw wax leneen tam mooy bu fekkente ne kenn ka ko gis ba mu koy gis moom dong ànd loolu waxum ñeenteel la bu dee mom dong and bu waxee ne gis naa weer wi moom des koy nangu waaye bu fekkee dafa àndoon ak ñeneen na ci àll bi ba noppi moom dong mu ne moo gis weer wi suba duñ ko nangu ndax lu tax moom dong mu ko te ñeneen ñi gis ñu ko loolu tam ba tey beneen waxum ñeenteel la waaye lool lépp mooy ci terotelu weeru weeru koor waaye bu dee weeru koor nag borom xam-xam yi moom daanaka daanaka xaw nañu dëppoo ci ne moom faaw ñaar ko bu dee weeru koor waaw ndax dañ ne maanaam weeru maanaam weru weru lo nga wor ci afan avant fekk sax weeru mana amu ci lolé ra nga wor ci avant manam mo gën mo gëna woyef ci ngay woré ci xabar yu xana yu worul la wa moo tax ñu mom pour nga woré mom pour nga woré mom la faaw nga am lu leer nañ ñi mom moo tax ñu sat ci ñaar nga sat ci ñaar nak euh ñaar ne mom dañ ci rafet njort rek dañ ci rafet njort rek ñu daal bu ñu ay julit lañu te ñu leen ñuy def jëfi caay-caay ci kaw di naan sàngara mbaa ñuy sàcc mbaa ñu njaaloo di ko fësal li fekk gisuñu def loolu dañuy rafet njot ci ñoom waaw euh, su ko defee nag leen la nëbb moom yàlla yàlla toppuñu ko waaw te itam nag léegi moom nga jot information wóorlu ko ba mu wóor loolu moom wax dëgg xaw naa yomb ndax boo dëgg ñu ne weeru fenn Mali li ci ëpp da nga ko dégg ci lu ëpp da nga am lu ëpp benn source da nga am ëpp ñaari source waaw te itam jokkoog ñu waa Mali fexe ba am ci lu wéer lu leer fi mu ne nii moom yomb na whatsapp baa ngi fi facebook baa ngi fi téléphone a ngi fi ak yeneen ak yeneen boo duggee ci youtube ba nga ax ba télé yaa ngi fi moom daal bari na yoon yi bari na waaw li ci sax bu dee fii ci réew mi léeg-léeg ñu ko gis dañuy wax seen numéro téléphone waaw diw gis na ci dëkk sàngam numéro téléphone am mi ngi nii fexe na laa jaral ba tax nga jël sa téléphone woote ànd nag ñëpp gis weeru moom lislaam santuñu ko bari waa ne fi mu ne nii ren jii woor koo xam ne fii ba tey gisul weer wi da koo dégg rek ndax lijjanti nag fa mu ko déggee daanaka lijjanti ko waaw bari na ñoo xam ne ay at a ngi ñuy woor te gëj ñoo gëj ñoo gis weer waaye dañ leen koy informé ñu ñu jàpp ko ñu jàpp ko amaa nag wax boobu Baye Sam daan wax ci ne koo dégg ko ko koo wóoluwut ci sa diine koo wóoluwut ci sa alal bu ko wóolu sa diine euh, jàpp naa wax la joo xam ne aw dégg la laaj rek waaw jàpp naa wax la wax léegi la laaj maanaam daa bëggoon wan rek na daal waruñoo jóg def ku jóg rek ñu nangu ay waxam ci mbirum diine jàpp naa loolu bëggoon a wax euh, ku jóg rek ñu nangu ay waxam ci mbirum diine waaw buñ fàtte ne it moom Baye Sam moom moo daan wax ne euh, maanaam gaa yu baax yi dëgg-dëgg seen xasanaat fañ ne moom mooy wala boog euh, waaw gaa yu baax yi maanaam seen xasanaat moom mooy ñaawteefu ñu àgg ci yàlla moom waaw ñoom tolloo nañ ci ay niveau yu yu kawe yoo xam ne léeg na eh, nañu jegee seen boroom ak eh, daal tax na ba niveau yi ñuy waxe léeg-léeg mën na mën naa mën naa mën naa romb sax fi nit ñi ne waaw mën naa romb fi nit lépp ngir bëgg lu gën a wóor bëgg lu gën a leer loolu yàgg na ko wax yàgg naa ci waxtaan naan eh, wàllu yu moom day yéeg yonante day wàcc loolu na ko nekk di ko nekk ko ci ay waxam wala day yéeg parce que moom fu mu toll mi ngi a jege yàlla su ko defee nag moo day gën a sori nit ñi yonent nag moom comme nañ ko yónni ci nit ñi moo la communiquer moom day wàcc moo tax moom nu mu gën a euh, ñi rek ci la ak yonent ak nu boobam di gën a mate waaw kon euh, jàpp naa ne loolu la ci jublu woon rek mooy daal ne nañ koy topp ba mu wóor waaw nañ koy topp ba mu wóor waaye euh, bari waa ne ku lay wax ne weeri feeñ na nga gëm ko te sala bo amon tay ji sa 3 millions war ko denc wer do ko ko wolo jox wa do ko ko wolo jox lol mom ku nek ma nga xol ñu la gëna a rek ño xon tay bu ñu xon na gis na wer wi moom nga nga am yàqin ci na gis nañ ko waye est ce que nga denk len 500000 ba mu am wer euh wala sa jep nga denk len ko loolu japp na ne tak tak la ba buñ buñ ci bëggee basé woo mën naa mën naa métti ci ñun lool waaw.